الرحمن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه mbokk yi ci yàlla asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp waaye di jiital ci nuyoo bi ak ziar beeg ndokkeel bi suñu xarit suñu mag suñu soppe Coono Amat Njaay mi nga xam ne ku ko nuyu nuyu taalibe bàyyi bu dëggu bu fees dell ak mbëggeelu Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu waaye nekk it ku sawar ci liggéeyal Mawlana Cheikh boole ko ak teggin yu kawe boole ko yitte bu yëkkatiku ñu ngi koy nuyu di ko wàccee wàcc waayam di feddali suñ kóllëre ak moom kóllëre gi nga xam ne ba mu ko fasee ñun ba léegi dañu benn yoon ci di ko feddali di ko dundal di ko yeesal loolu di wane ne ku am kóllëre la ndax euh, boroom kóllëre dëgg euh, bu fasee kóllëre du fecc mukk bu joxee loxoom dootu ko rocc loolu mën nañoo seede loolu ci moom moom du kuy soppeeku te jamono ji nag léegi soppeeku yomb na lool nit ñi ñu ci bëri soppeeku daf leen a yomb waaye Thierno Amath mii moom ni mel rek daaw mel ren loolu di wane am kóllëreem ak dëggoom ñu ngi ñaan yàlla mu wattu ko ñaan yàlla mu dolli ko jàmm dolli ko wér te yàggal ko fi bu mu mën a continuer di liggéeyal sëriñam Mawlana Cheikh Ibrahim mi nga xam ne ci liggéeyal ko xëy di ci gont ñu ngi nuyu njaboot ci njabootam gi yëpp. njaboot ci biir ak njaboot biti eh, waaye di nuyu sang yi nga xam ne yàlla baaxee na ñi ñu bokk ak ñoom jotaay bi seen teewaay ci jotaay bi bokk ci yiwu jotaay bi muy cheikh abdullahi mii ci sama ndeyjoor mu suñu nijaay suñu sëriñ cheikh Hussein ibnu cheikh Hadj Babacar ni wala cheikh Hadjullah ak rakkam yi ci jotaay bi suñu soppee suñu xarit Cheikh Tidiane ak magam Cheikh Mouhamed ak seen ab jigéen Seyda neen la waaye duñ fàtte suñu magu daara Cheikh Nazir di mag ju baax moom it ñu koy nuyu waaye di nuyu itam soxna maam Yacine suñ goro di nuyu doomam suñu soxna su bees si di bég bu baax ci euh, yokkute boobu di ci ndokkeel suñ bopp di ndokkeel Cerno ak njaboot ak mbokk yi yëpp ndax loolu dooleeku la xamoon nañ nag ne Cerno yàlla dina ko may lu bokk ci bàyyi loolu moom bettut kenn yàlla yàlla saxal may yi yàlla barkeel seen diggante dëppale leen ci wërsëg ak ci njaboot te mu nekk koo xam ne dafay yokk itam kër gi di yokk borom kër gi di yokk njabooti borom kër gi di yokk mbooleem ñaan ak borom kër gi yàlla mën na loolu yàlla ko yàlla def waaye di nuyu magam yi mu fekk ci kër gi muy soxnaay Coono Amad yëpp ci Dakar ci kër gi fii di nuyu tamit jamaa bi yëpp di nuyu wëllëre yeeg wëllëre Coono yi ak soppeem yeek xaritam yi ñëw ci bés bu tedd bi yëpp fàttewuñu kenn di nuyu mbooleem ñi teew di ndokkeel ñëpp di ndokkeel suñu bopp ci jotaay bu tedd bu barkeel bii nga xam ne ñu ngi ko fas ngir fàttaliku ak màggal Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima muy fàttaliku bàyyi nag di lu war màggal ko di lu war feete feeñam ci àddina di lu war ndax jamono ji nit ñi mënuñoo jékki toog ak loxoy neen faw ñu yëngu ci dara moo xam kay lañuy yëngu am njëriñ baa ñàkk njëriñ waaye moom fokk ñu yëngu moo tax gis ngeen yëngu-yëngu yi bari na lool fu ne ñu ngi fay feetee ku ne di feetee yi tamit lu ne feet yi bari nañ lool ci àddina bi rawatina ci réew mi di Sénégal waaye dama nekk li jar a féete mooy feeñi Mawlana Cheikh Ibrahim ci jamono kub yi ñuy feeteeg feetu jigéen ñi baax na feete kub sax man contre ma ko baax na feete euh, bésu mbëggeel yooyu yëpp lu ne ñu ngi koy feete waaye li jar feete mooy dëgg-dëgg ki jar a féete mooy Mawlana Cheikh moo tax Thierno Amath jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne yéen ñi may occasion yi pour ñu mën a feete Baay ndax bu li bu ngeen ko defutoon xeer bi yëpp danañ bàkkaar danañ bàkkaar ndax xéewal bu toll ni Mawlana Cheikh Ibrahim nga xam ne xéewal yi ci des yépp ci biir xéewal googu ku ko yàlla jox mu feeñ ci sa defal Sénégal loo xam ne nii moom rekk ko defal senegal keneen mënu ko woon a defal senegal ku dul moom lim defal Sénégal waxuma sax ci wàllu barkeeg wàllu baati nag euh, wàllu yàlla waaye damay wax rekk ci zahir boole gim leen boo bokkale gim leen bokkale ak àddina yépp yi lim ci liggéey nga xam ne diplomate yi mënuñ ko état yi mënuñ ko sport euh, mënu ko football mënu ko ak milliards yi ciy def xaalis yi état yi def ci loolu yëpp waaye li ci bàyyi réalisé xam ngeen ne yooyu yëpp mënuñ ko kon dëgg-dëgg kooku lañu amee njukkal moom lañu waroon a feete te it feete ko ak màggal ko mooy feete xéwali yàlla yi yëpp màggal ko yi tamit mooy màggal yàlla ndax wa man yuazim xurmaatillaahi fa wa xayrun lahu inda bi te amul sikk ne ci xurmaatillaahi yi la bokk fàttali koy tamit mooy fàttaliku bési yàlla yi te mooy xéewalam yi wa dakkiru bi ayaamillah yàlla na Moussa bokk na ci sa mission mooy boo demee nga génnee sa xeet ci lëndëm jëm eh, dugal dugal leen ci leer ak fàttali leen ay ayaamullahi ayaamullahi borom xam-xam yi nee nañ ñooy xéewal yi kon gi ñu def alxuraan moo ñu ko sant waaye nag mu ñeel ñi nga xam ne dañoo euh, gëm ndax wa dakkir fa inna dikra tanfaul muminin dëgg-dëgg euh, bu ñuy wax fàttali nag ñi gëm a tax ñi gëmul moom bokkuñ ci ndax ñooñu ñu ngi ci kufru ni am mooy wér di xéewal te ñun alhamdulilah rabbil alamina mucc nañ ci loolu ndax xéewal gi ñu yàlla jox xam nañ ko te ñu ngi koy sant waxtu bu nekk ndax lii sant rek la te sant di lu am solo mbokk yi ndax ku jàngal Alxuraan da xam ne sant lu am solo la yàlla dafa bëgg bu la joxee xéewal nga sant ko te ku santu du la dolli la in shakartum la azidannakum wala in kafartum in adabi la shadid kon sant baax na dinaay wax ne ku jàngal quran gis Seydina Nuux alayhi salaam at yu bari yam def ci xeetam di woote jëme ci yàlla ñu koy weddi di ko lor guddi ak bëccëg di tàngal xorom xam nga ne kooku daj na dara waaye yàlla ba mu koy tagg ci alquran taggeewu ko muñ naw kaana abdan shakura la wax moom day jaam bu doon sant la kon loolu wane na ne sant lu am solo la beneen aaya mu ne maa yafalullahu bi adabikum in shakartum wa amantum bu ngeen santee gëm sant la jiital sax ci gëm loolu di wane sant ni mu fooree waaye mu teg ci ne wa amantum bu ngeen boolee sant ak gëm yàlla dootu leen teg benn gërëtu leen gëtal dootu leen teg benn fitna dootu leen teg benn mbugal kon ñu ngi dajee di sant Mawlana Cheikh radiallahu anhu eh, bëgg a fàttaliku rek dara ci dundam bu barkeel boobu dund bi nag yaatu na yaatuwaay boo xam ne xajul sax ci jamono lépp waxtaanee ko laa wax bëgg a wax xajul ci jamono lépp ndax lim ci def xajut ci jamono lépp xanaa dafay rek eh, yàlla moo barkeel dundam lemal ko jamono waaye bu dul loolu lim def ci jamono ku ne xam na ne xajut ci jamono lépp nga gis ne bu ñuy wax dundam dañ koy tàmbalee ci irxaasaat yi nga xam ne moo jiitu mu feeñam ci àddina xam nga mbir mu màgg buy waaja feeñ ci jamono fokk dina am ay màndarga yu ñëw di ko mbir yu ko màndargaal ay signe yoo xam ne day ñëw di màndarga di di signaler ne am na luy rëy luy waaj a xew am na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg ngeen gàmmukat yeeg tisakkat yi di ko nettali kéemtaan yi feeñ ca at ma muy gane àddina am na it ci Cheikh na Tijaani radiallahu anhu wala yu ko jiitu yépp bégle nañ ne dina am waliyu bu mag bu ñëw boo xam ne mooy sangi waliyu yi mooy xatmul wilaayati al muhammad mooy xaatimul wilaaya sax siècle ba muy feeñ muy douzième siècle ci hijr bi li ko junj njëkk mu feeñ bari na ndax danga nga fekk ne nit yàlla yi junj nañ ko Sidi Abdul Qadir Jeylaani waxam ju jël walillahi xalfa al ismi wal wa anhu uyunul alamina hawajau ku ko jàng xam ne kii joxañ na bàyyi meloo yàlla bi nga xam ne mu ngi nekk ci gannaaw tur ak melo yi kooku mu ne melo boobu ñu bëri eh, yàlla iir na leen ko te mu ne mooy melokaan yàlla boo xam ne ni xalsi naa fee ci jamono kooku xam nga ne du ñu bàyyi ak ñeneen ak ñeneen ba ci Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu nga xam ne di di na ko junju faydaam bi taati faydatun ala ashaabi ba wax ja jeex kookuy junju na bàyyi wax ne am na koo xam ne dina zahara rajulun fi taa'ibati fi dunya wa laa am na koo xam ne dina ci sama kuréel bi duñ ko xam ci àddina duñ ko xam ci àllaaxira kooku xam ngeen ne Mawlana Cheikh rek la ci jublu ak ñeneen nag ñeneen ci awliyaaw yi faydaam bi ñëpp di fayda bi ñëpp di ko fóoglu di borom ba bu yàggut sax ci yi nga gis ne ñoom comme dañoo yàgg a xeeñtu mbiri tariqa beeg fayda bi ay kàngam doon nañ seetu ta bi nag fayda bi nag booba tariqa bi am na téeméeri at ñu ne fayda bi nag bu jot na fi ne nii mu feeñ xanaa war naa feeñ am ci ñoo xam ne demoon nañ sax ba foog ne ñoom la am ci ñu foogoon ne sax weesu na waaye gannaaw gi ñoom ñépp xam nañ ne feeñagut am ku mel ni Abdoulaye Waradul Xaaj ñëw Sénégal gi di ko xeeñtu si ngir xam ne moom du borom waaye muy mébét ak nim se dajeeg borom li jaasaal ko bokk ci ñi nga xam ne nii dinañ nekk euh, barkeelu ci nekk bokk ci silsilaam Abdoulaye Waradul Xaaj moomu wax na Mawlana Cheikh bi ko gisee ne ko yaay borom tadarul faydatu ala yadika xaqiqatan wa ala yadi xayrika majaasan fayda bi dina feeñ ci sa loxo yow ca dëgg-dëgg keneen ku yow nag day feeñ ci loxoom feeñ ak ab dañ ko ko àbbal rek waaye pour yow du borom dëgg-dëgg yow rek yaay borom ne ko anta kabiru tijaaniyati fi asrika yow yaay magam yaay cheikh na tijaan yaay tey jii nii ki nga xam ne yaay kilifa tijaan yëpp sa jamono ku nangu ak ku nangu loolu Abdoulaye Wadoul Hadj wax na ko nga gis ne kon bàyyi gars yi fuglu nañ ko lu yàgg yàgg yàgg bokk na ci màndarga yi dañ koy tënk rek ndax dafa bëri waajuram Seyda Aïchatu Janqa gént gi mu gént bi mu ànd moom ne weer wi fàq na di jëm si ci moom ba daanu ci kawam luppam loolu yépp ay màndarga la waaye itam bàyyam Mawlana Cheikh Alhaji Abdallahi doon na fuuglu doom jooju doon na fuuglu fayda boobu nga gis ne Mawlana Cheikh Alhaji Mawlana Cheikh Ibrahima Laanu bàyyi daf yàlla daf koo tànnal daf ko waajal préparel ko léppam ndax waajur wu mel ni Mawlana Cheikh Hadj Abdoulaye ku ko am xam nga ne yàlla waajal na ko lépp dajee ci moom baay jéggaaniwul dara ndax dafa fekk baayam fees ak li mu war a uti feneen yépp yàlla dajale ko ci baayam tegtal bi mooy kenn dowut ci yaram dara wala njàngam wala mbiram ku dul baayam ci loxo baayam ñaari ñaari loxo baayam yi tedd yooyu ci la mattee njàngam mat yaram mat jàgganewul dara fenn kooku xam ngeen ne waa waajal nañ ko ci utal ko bàyyi bu mat bàyyi waaye am na yaay itam occasion la sax ñu wax ci mamaas tuuti ndax fan yi ñu ngi feete jigéen ñi di jox nit ñi yeneen exemple yeneen jigéen yooyu baax na bu dee jigéen ñu baax lañ joxe leen exemple dara nekku ci waaye ñun Mame su Diankha mooy ki nga xam ne ñun moom lañuy jox jigéen ñi modèle di ko jox sax góor ñi ndax góor ñeeg jigéen ñëpp ñoo war a jàngee moom ñëpp war a roy ci moom rawatina nag jigéen ñi soxna su tedd su màgg soxna su màgg soosu nga xam ne ah, dinaa nettali rek benn nettali ci moom Pape Diouf a ngi wax léegi ñu koy nuyu baax. di rafetlu taxawaayam di rafetlu kàddu yi mu fi yëkkati muy wax léegi bi soxna si bi Thierno Amath seede ci soxna si di suñu mbokk moomu ci Europe sedde bi mu seede ci moom ak digganteem ak wujjam mu ne loolu leçon la ci jigéen ñi waaye maam astuy joxoon na jigéen ñi leçon boo xam ne ñëpp war nañ koo bàyyi xel dafa toog benn bés mu ne sama doom yi yi ak sama wujj yi bu fekkee ne yéene naa ci kenn ci ñoom luy tolloog liy ñuul ci we ci safaan yàlla bu ma fekkee sama njëriñu doom yi xam ngeen ne boobu déclaration euh, déclaration bu jafee wax décla def la yaakaar naa jigéen ñu bari ñemewu ñu wax loolu moom wax na ko te waat na ba wàcc ndax fekkee na moo daana Cheikh Ibrahim bàyyi jàng na ba dajal xam-xam ci kanamam taalif taalif yim taalif ci kanamam oote faygu bi ci kanamam sanc dëkk bii di Medina ci kanamam àddina bi yëpp di ko fekk ñu weex ak ñu ñuul ci kanamam aj màkk ci kanamam ñibbisi fekk ko fi mu tarbiyu naan ci faydu bi kooku xam nga ne fekke na la loolu wane na moom waat na ba wàcc soxna su màgg ngi noonu doy na ko rek euh, màgg euh, doy na misaal ci màggaayam rek ñu ne mooy waajuri Mawlana Cheikh doom ji ma am day kenn mu a gis doom ju mel ni moom li mu def ci lislaam liggéey ko liggéeyal ko mbindéef yi kenn mësu koo liggéeyal mbindeef yi ku dul gannaaw yonent yàlla Muhammad seen na Cheikh radiyallahu anhu mbiram daj àddina kapp fu ne mu yóbbu fa lislaam yóbbu fa mbaax tasaare ko ci nit ñi tàpp tappe tapp tapp tappe xol yi takke nit ñi ci yàlla lim liggéey loolu yooyu lépp ñu ne maam astu mooy yaayam maam astu loolu rek doy na ko foo dem ci Afrique tey fekk fa ay sëtam ñu weex ak ñu ñuul ay awsa ak i naar ñoo xam ne nii dañoo sëtu ci moom maam astu sëtu ci réew yooyu loolu moom rek ko doom ji ma am moom rek moo ko am résultat bi mu moom rek moo ko am loolu wane na ne royukaay yi ngoog kuy wut royukaay rom maam asu jànqal xam nga li ngay def dëgg-dëgg xam nga li ngay def damay wax ne suñ bàyyi Amar Thiané bi ñuy jàngal Hamziyatul Busayri ba yegg si ci yow ma naa leen bi war di ibn tawabin رغم نعرف بعض ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء واتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء mu ne bu Seydi dafa wax ne bu keroogee bés penc jigéen ñi dafa dañuy dugg ci géew bi di di bàkku ku ne naan man maa jur waliyu sàngam ki naan maa jur yonentu sàngam mu ne waaye bu Seydatuna Amina jógee rek ñépp noppi mu ne loolu bu say wax waaye bàyyi ma teene teg ci ne bu keroogee dee moom asu jànq dana yëkkati drapeau boo xam ne ñëpp dinañ ko seen nag bu ne man maa jur Cheikh Cheikh Ibrahim Niass mu ne bu keroogee dina gàddu moom it drapeau boo xam ne nii kenn du ko ñàkk gis ci bëccëg yàlla te loolu mu wax lu wér la radiyallahu anhuma foofu sax danañ fa ne bàyyi ni fonkee jigéen maanaam gëdd bi mu jox bi lislaam jox jigéen alxuraan jox leen ko sunna jox leen ko yonent yàlla Muhammad wàccee leen wàccuwaay bu kawe ñoom jigéen ñi gannaaw yonent bi gisuñ ko wàccee jigéen ñi wàccuwaay bu toll noonu gannaaw pour Mawlana Cheikh Ibrahim gisul ku doon yonent bi doon bu mat sëkk ci jox jigéen ñi cër bi ñu am eh, ku dul Mawlana Cheikh xaqiqatan coow yi bëri na lool waaye sëriñ boo xam ne école boo xam ne da ngay fekk jigéen jël ci cëram ba mat sëkk école yi bàyyi bi rek la gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp lu muy def defal góor ñi rek defal na ko jigéen bi bi muy jàngal góor ñi alxuraan digal góor ñi jàng alxuraan bàyyi na xel jigéen ñi jigéen ñi wattu alxuraan dëgg dëgg coow li bëri na waaye Mawlana Cheikh moo ko fi jàngale jigéen ñu am xam-xam moo ko fi jàngale ayatool ba naatu ba mu waxee jigéen ñi góor ñi ab naa ixwati walal madrasa mintil madarisi aruni qabasa góor ñi la njëkk oo ci ñu ñu ñëw góorgóorlu ci xam-xam waaye mu teg ci jigéen ñi la yetu wal banaatu zaaxim na ilaa dalil ula amma bi ab daarin fala neen jigéen ñi na ngeen rëj rëjloo ak góor ñi ci lef mu kawe ci ut mbaax ci sàkku xam-xam te bu leen ko defee nag ci bañ a nekk fii di tàdd ci toilette mu métteeg pasteloo meesoo petit teg ak yooyu mu ne du loolu mu ne yëf yi mooy góorgóorlu rëj rëjlu ci xam-xam laa wax ak ci jikko ju rafet loolu bàyyi dam koy wax booba jigéen ñi kenn waxu leen loolu waxaat feneen ne wal bintukal ibni fa kuuni mahramaka lam takuni li tarumi mazlama kon moom xàmmeewut jigéen a góor ci yaram même tarbiyu bii mu indi sax fayda bi am na mag ñu bari ñu jàppoon ne ci góor ñi rek la ko bàyyi di yemale ndax alxaaj ma abdu ñang wax nañ ne yaayam daf ko waxoon ne ko damaa bëgg a tarbiyu mu ne ko hee sama ndey loolu nag moom dafa mel ni mbiri góor ñi rek la waaye ba ko bàyyi déggee bàyyi dem na ko déedéet góor ak jigéen ñoo ci yem fa faadami nii xat يقصد لي ما عرف الله الصمد سواء للكبار والصغار قد قرب الحبيب والمزار سواء للسعلك والسلطان سواء للرجال والنسوان mu ne ñëpp ci yem góor ñi dañuy naan ci li ma yore ni ci jigéen ñi jigéen ñi dañ ciy naan ni ci góor ñi naanee buur ak baadoolo de yëpp naan ku sore ku jege yëpp ci yem ku ma dikkal daal dana la dogal sa kiraay nga àgg ci sa borom naan ci kaasi maarifa yi te loolu dëgg-dëgg déclaration boobu ñëpp teg nañ ci bët kon dama bëgg wax ne foofu noonu la leen joxee cër lijaase yi mu jox leen ci te ñu bëri ci mage muqaddam yi dañ doon tënk jigéen ñi ci yu bëree bëri bëri même maqaasid yi sax nga xam ne mooy boo tarbiyoo ba pare askar yi nga xam ne kilifa yi dañ ci daan nay di ko nëbbu di wax ne ñu bëri yelloo wuñ ko bàyyi def ne moom ba ko Cheikhaani laajee ne ko ndax mën nañ koo jox jigéen ñi bàyyi def ne ko waaw waaw amal maqaasidu fa xaddu aarif yi maa kullu majzubin bi daaka al aarif yi bal man fanaa baada baqaa'i wa salak nahja tariq al xaqi wa nafsa malak hada huwa rajulu unsa am dakar wa siru lil xayri wa barin wa xatar mu ne ko man xàmmeewuma góor ak jigéen képp ku def ku tarbiyu ba àgg ci yàlla def sulu ba ràññee pays rek man dama jàpp ne yow góor nga waaw góor nga yelloo nga lépp joxal jigéen ñi ma xaasa ji kooku dëgg-dëgg tinki na jigéen ñi ci lépp kon loolu bëggoon naa koo fàttali jigéen ñi waaye di wax ne kooku mooy Morana Cheikh loolu laa bëggoon wax ci tuuti rek ci digganteem ak jigéen ñi c'est léegi nag c'est dafa mamastu léeg-léeg nga dégg ñoo xam ne fan yi dañuy waxtaan ci moom di xaabaabal te loolu miinuñ ko woon ci école Baye mooy di créer ay wax loolu nañ ko bàyyi ñeneen ñun lañu am ci lu wér loo xam ne boo koy wax fii ba àdduna tukki du jeex te lépp wér nañ ci yem bàyyi liñ ko mën a waxal mu wér mënoo koo jeexal kon yemal ci loolu jarul ñu ko yokkal maam astu dégg naa koy wax naan mokkaloon na alxuraan am na xam-xam yooyu yëpp jarul jarul parce li ko yàlla defal moo moo am solo xam nga mokk alxuraan baax na lool waaye jiwu la ba mokkale alxuraan dafa mel ni am nga jiwu jiwu baax jiwu jikko yu baax yi yépp ak yàlla bëgg nit ki jullit bi mel yépp jiwu wa am nga ko waaye nag amagoo tool bu meññi feek jëfa jikkoo alxuraan jëfandikoo alxuraan jëfee ko dëppale ko sa jëf ba mu nekk lu jikkoo ba maastu nag meññet mooma ca la àgg te bëri na koo ta alxuraan te àggu ci résultat na ne dëgg-dëgg moom mooy alxuraan sax ndax li génnee ci ki génnee ci moom mooy jëmmi alxuraan kon kooku soxlawul ñu ko yokkal nit ñi dañ bàyyi yokk yooyu am na kuy wax ku commencé daan télé mu ne muy waxtaan kenn la ci waxtaankat yi di wax ci bàyyi mu ne Mawlana Cheikh Ibrahim dafa daan wàccee alxuraan lépp ñaari yoon ci guddi gi da koy naafila ba mu jeex tàkk guddi gu jot ma ne ko yaa mën a wax lu am xam nga li leen dugal ci loolu mooy yeneen kër yi ñuy dégg ñuy tudd seeni kàng kàngam foofu di wax naan sëriñ diw danaan naafila kaamil bi rakka njëkk benn xaaj rakka bu ñaareel benn xaaj fajar xar alxuraan jeex ñu bëgg leen a wan ne suñu sëriñ def na moom it tamit loolu ngir bañ ñu ne am nañu seen sëriñ ñoom def na ci alxuraan loo xam ne dañu doon jàng ci alxuraan moo ëpp li bàyyi di jàng waaye bàyyi amul jot ci loolu bàyyi lim doon jàngee alxuraan moo ñu ko wax mooy def ne dafay xat jàng ci bëccëg bi suba bu guddee mu tari ko bëccëg bi daf koy jàng di ko xool guddi gi mu tari ko semaine bu jot. dana wàcc kaami da wàccee kaami bi ñaari yoon loolu mooy lim waxal boppam bi yow mi yetluwu bi jërin wa xufiyatin dawaaman ngiru yow mi fii dakaliluwu àjjuma ju jot mu wàccee ñaari yoon parce que moom royukaay la bokkut ak sëriñ daara bee nga xam ne day xaj wàcce alxuraan xëy na peut-être ci bés bi waaye moom boo ko seetee jëfam loolu rek la talul leneen loola rek mooy dundam doo ko fekk muy taalif doo ko fekk muy jàngale doo ko fekk muy sa wër àddina bi tasaare lislaam doo ko fekk muy firi alquran doo ko fekk mu ne ci yeneen géew yi géew yi yëpp nga ànd ceeg nit ñi bàyyi nag amul jot boobu jarul yokk yooyu jarul léegi ñu ñëw ci gane àddinaam balaa ñoo woon dëlsiwaat ci lenn ci dundam gu barke boobu ak liñ ci mën a jànge moom mu ngi gane àddina ci weeru rajab bi ñu génnee bu yàggu ci bésu alxames ci Tayba ji seen dëkk bu tedd boobu gannaaw tàkkusaan tolloog 1318 nga gis ne yépp ay tudd la bés bi di alxames bés bu barke la bés bu leer la suñ mbokki pël yi sax nga xam ne léeg-léeg gaa yi dem ci ñoom ñu leen di defal seen yooyu pour neexal jamono yooyu seen euh, condi yeeg seen yooyu dañ lay wax ne la boo mënoon a tàmm alxames te ñëw fi euh, dina gën a baax moo ëpp yaakaar alxames wala altine ma ne kon alxames dafa mel ni daal ñëpp xam nañ ne bés bu barke la borom mulxatul arab sax ne ne yow mu xam si day yërul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanoon bu yàgg ne allahuma barik li ummati fi bukuri alxamisa wa sabta eyow yàlla yàlla nga defal sama xeet yi barke ci seen xëyam alxames ak seen xëyam samedi yaakaar naa ñu dey ñaan boobu gis nañ suñu bopp ñun de alxames yoon nañu dara bi mu ñu yotee Mawlana Cheikh muy bés bu barkee ca tàkkusaan gannaaw tàkkusaan loolu yi di beneen juddu ci aarifu ne beneen ñoom ci Ahmed Ndiaye wéytulum ñoom ñu wax la ci asru lu bëri asrul xilaafati tàkkusaan dafa dëppoo bàyyi moo tax ci la boobu rek ci la bàyyi moom la gën a àddina waaye nag aarif mu lay day ku bëgg ñu wax ak yow doo leen fekk ci mbooloo ndax seen mbóot du du feeñ mukk ci mbooloo mu ngi mel ni rek mbaam mbaam bi wax ne du jur ci mbooloo waaye seen mbóot du ci mbooloo de xam nga ñoom léeg-léeg am na foo xam ne ni sàcc yi defee moom it noonu la ñuy defee. ni lu loo nag sàcc yi nag waaye dama ne ni sàcc yi defee dañ koy defee ñoom it xam nga aarifu ne tonamat bu ñu wéetee sàcc yi kon bu ñu wéetee dañuy waxtaan ku ne naan di day neex la naa de dal naa ci portable bu cher waa ji dama ko jekk poosam bi daal dama ko làmb rek daj portable boo xam ne iPhone 10 la comme ni ma def fan yi <laughs> wala man de soxna si dama dal ci saagam bi rek fekk ci pariru or boo xam ne bi ma ko jaayee yooyu la ñuy leen di waxtaan rek place sàngam moom de leen fa bàyyi dem ndax dafa mel ni daal yaraax na ñu sàggan lañ te dara nga fi mën nga faa dal place bu nooy la yooyu la ñuy ne di waxante bi waxante seen i secret ni laa ko def ni ma ni ma toj ni laa def ni laa tojee buntu ba ni laa duggee ci kër ga waaye bu keneen ku bokkul ci ñoom ñëwee rek bu ñu ne pat waxtaan woowu moom mënoo fexe bañ wax ci dara ci sa kanam gannaaw bokkoo ci ñoom duñ wax ak yow bu ñu weetee rek lañuy ñuy waxante ñoom yi neen ñoom sàcc yi aarifu na yi tamit noonu lañu war a def bu ñu weetee ñoom yi neen ay aarif yi ñu waxtaan ci yàlla bu ku bokk ci ñoom ñëwee ñu ne pat ba mu dem waaye nag léegi ñu gis mooy ñu ci bëri ci réseaux sociaux yi la ñuy jàngale maari wax maarifa xam nga dañuy wax sax maarifa la xaw ma lan la loolu baaxul ko baaxewuñ ko woon ci mag ñi imaamul Junayd yi daraan def bu bëggee waxtaan ci yàlla dafay tëj bunt bi maanaam bu xoolee ba gis ne néeg bi ñi ci war a nekk ñoo ci nekk ci ay taalibeem xaas si mu ne tëjal leen bunt bi tëj bunt bi sax du tax mu óolu waaye def naa leen ji ñu jox ko caabi ji mu toog ci yadaawul mafatiha taxta wari kayhi suma yabdawul xadiida balaa commencé ci yàlla rek ishaaraat rek dafay fekk xaas si kese dañoo segg jotaay bi ay xaas rek a bunt bi toog ci caabi ji soo ko commencé wax ci yàlla loolu moom lañu baaxoo woon ci ñoom Sidi Arabi ibnu Saayex moom li muy wax mooy bu ko gaa yi di wax waxtaanloo ci yàlla mu ne afisamaa yi xaymul mbaa asamaan si xiinu maanaam mbaa raxul bi li ñuy wax ne ceeb bi mbaa amul tànn bu ceeb tànn nañ ko tànn sànni ko fële tànn bi soo ko waaye suur ceeb bu am tànn jigéen ñi xam nañ ne gën bu na ko nee fala xayra fi tax fi taabiri fi kulli mahfalin qad intaqala al asraaru min xayru yujharu nee na di wax ci mbooloo di wax ci rajo di wax ci internet di ci wax secret yàlla yi nee na loolu baaxul ndax mbóot fu ñu ko biralee rek dootul mbóot mbóot daal dañ ko yeloo rek lay mbóot kon alxames ngoo tàkkusaan jàngoo 1318 ngoo moom it boo ko seetee mu ngi tolloog lahumul bushra boo seetee déchiffré aaya bi di lahumul bushra gi firi eh, yàlla nee na gaayam yi am chance yi mu bëgg mbégte ñeel na leen ci àddina ak àllaaxira baat boobu yàlla wax boo ko xisaabee moog année bi Mawlana Cheikh gane àddina yoo tolloo mu ngi trois cent ba tey moo tolloo inna ilallahi raghibun inna ilallahi raxibuuna boo xisaabee inna ilallahi raxibuuna rek mu jox la 1318 mooy ñun dey yàlla rek ci lañ jëm yàlla rek ci lañ soxla te xam ngeen ne bàyyi bi mu ñëwee ñëpp ñi en tout cas ñi am tawfiq ñëpp inna ilallahi raxibuuna la seen xaal wax ñun daal soxlawuñ lu dul yàlla jëmuñ ci ku dul yàlla kon léppam ay ishaaraat la radiyallahu anhu loolu mooy dat bi sosoom ñu wax ci tuuti rek sosoom bu laab boobu nga xam ne moo ko waxal boppam moo ne alhamdulillahi nachatu tahira maa qultu faxran bal nataxtu shakira mu ne man maa ngi sant yàlla damaa sosu ci sosu gu laab gu teey gu sell waxuma ko nag ngir puukare waaye dama ko wax ngir sant yàlla wa ammaa bi ni'mati rabbika fa haddith mu ne maa qattu jaalastu safihan wala maa ashab si waa fuxuuli qawmin ulama musumaa jékkiyaale ku dese ku manqué ci jikko ku yaram manqué ku jubam manqué musumaa ànd ak wala may jékkiyaale lu may ay ngonki borom xam-xam ak ay nit yàlla loolu mooy sosoom ca kër baayam bu tedd ga nga xam ne nit yàlla yi yépp fa lañ daan dajee surafa Muritani yi fu ne ak ñu baax ñi ci réew mi ak ci àddina bi yépp foofa lañ daan ñëw di fa xeeñtu barke te ku ñëw Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu dana la teral ca ba muy nekk ndaw sax bat naari gànnaar bi xàmmee ko ci biir njabooti Mawlana Cheikh xajablaay euh, banaan fa kullu faten mislu ibra fa xayihi fa ibra min azuwaari yetnu wa yaqrubu loola ba ko kooku di seede ci moom teel na lool wane ne ko amoon ittale ci saalixine yi dafa yàgg xeetu baax dafa mus a baax boo ko gisee nag mu jëkkaale ñoo xam ne nii xëy naa am na looy sikk ci ñoom xamal ne ñoom ñoo toog ak moom rek waaye moom toogut ak ñoom xam nga naa Cheikh ku jafee xam la ndax dafay ànd ak mbindeef yëpp seexlu wut kenn ndax nit ñi ku leen war a defar doo leen seexlu waaye fekk na kaa inan baa inan la kaa inan baa inan xam nga nit yàlla yi ñoo lay wax ne kun kaa inan baa inan mooy nekkal ak nit ñi nekk ci li nit ñi nekk yëpp di yëngu ci li nit ñi yëngu yëpp te fekk yow nañ cee yëngoo ak nañ cee yëngoo du benn ndax yow yaa ngi ca ak sa jëmm rek waaye sa xol ma ngi cay bi moo tax su Sufyaan ba waxoon ne al jasadu fil xaanuut wal qalbu fil malakuut mu ne sama jëmm ji de mu ci boutique bi di xool marchandise mi di jaay waaye yàlla xam ne ne xool bi moom newut ci alali àddina ji sa newut ci àddina sama xol bi ci yàlla rek la aju Mawlana Cheikh loolu moom moo tax ñu koy wax kon sosu baangoo nekkoon ku sosu ci jaamu yàlla ku bëgg jaamu yàlla ndax doon nañ wax am na dégg naa nit ñi xam nga rek ñoo bëri wax lu ne la ñuy wax am ku ne bàyyi est ce que am na jotu jaamu yàlla ak tukkee bi yéeg yii nii dégg naa bàyyi dégg tukkee bi bëri yéeg yëngatoom yi est ce que am na jotu jaamu yàlla xamul ne tukkee bi jaamu yàlla la xamul ne bàyyi yëngatu yooyu mu yëngatu mooy jàmm yàlla bu mag ndax ah, boo fi tëjoo di naafila suba ba ngoon jëriñoo lu mooy sa bopp waaye naful mutaaddi bi dëgg-dëgg mu ngi ci nga fexe ba nit ñi bëri jëriñu ñu bëri dem bëgg naafila ñu bëri bëgg yàlla Eh, fi mu nekk ak fi nit ñi new ne du benn mu doon ko déggee moom bàyyi mu ne ah kooku day xamuma ndax man sama bàyyi bi may ndaw sama naafila yu bëri sama julli yu bëri daf koo jaaxaloon sax xam nga nag jaamukat yàlla bu toll ni moom rajo kum dem ba yéemu ci say jaamu yàlla yu bëri xam nga ne ko kenn gënu laa eh, nekk jaamukat yàlla kenn gënu laa tàggatu ci jaamu yàlla. kon loolu la miinee woon jaam yàlla miin wéet bañ naan ko maxa am na sax ñoo xam ne maxa gi looloo ko lii ñeme wéetaayam bi ndax dafay wéet parce que dafa wéet ci biir jamono ndax li muy dund ak fam ne ci yàlla fu ko mat wéetal amul moo taxoon mu tànn wéetaay ab diir ba bi yàlla joxee digal mu feeñ ngir jëriñ nit ñi ci la soog a feeñ ak liggéeyal baayam ba gis ni mu toppee woon baayam ci ndawam maan ci ndawam ba tey liggéeyal baayam mu ne defal na ko baayam di ko taxadil di ko bu bàyyam ootee mooy njëkk a ñëw uyu si ko li mu bëgg mu defal ko ba sax wax nañ ne da daan jóg 4 heures du matin dem ci àll bi di taxani taxanil bàyyam balaa nit ñee yeewu fekk na indi sayam teg am ñu ko jaxaseeg bàyyam ne ko Ibrahima lu dem di taxani ji bàyyam ne ah taxaniwul dina ko dee taxaniwul mu ne compté leen say yi ñu compté ko gis bosom am na sax ñu koy nettali di jàpp ne karaama la maanaam Euh, taalibe yi ñu gisul wala ruuxaan yi ñoo indi say waaye fekk mag ñi leneen bàyyi nee na moom da daan jóg quatre heures taxani ji gars yi nag booba ña ngay nelaw ñu foog ne taxaniwu ñu ne bàyyam Ibrahima mii kat taxaniwu taxa du taxani du liggéey fekk moom liggéey bàyyam kenn mënu ko ci kenn mënu ko ca tool ya wattu la tool yi bàyyam yi ba tàyyi liggéeyal na ko ba tàyyi ñaqal ko guddi ak bëccëg ngir sàkku barke ci moom wax na ko benn suñ benn nijaay bu mu bind leetar lu baayam teel a wattoon ngir xam-xam jéggi na dayoo mu sowuteeg baayam nee la waaye nag léeg-léeg ñu jaxase ko baayam xam nga nit ñi moom bàyyiwuñ kenn ku mel ni Mawlana Cheikh Ibrahim sax ku ko bàyyiwul doo ba kenn wax nañ ne benn bés bi ñoo wax Mamalaaji ne ko Mamalaaji dafa jëndoon ay yére njënd xotti njaboot gi daal jox leen ay piis ne kenn ku nekk nañ ko ci ñawal waaye nag mu ne leen bu kenn daloo te aset ji weesuwul ndax dañuy wax ne samedi du bésu daloo Mawlana Cheikh Ibrahim moom bañ ko joxee mbubbam mi rek mu làq sol mbubbam xale yi ci ma mamalaa ji ne ko bàyyi ñëpp day eh, def nañ li nga wax denc seen yére yi di xaar bis bu rafet pour daloo ba mu des Ibra Ibra de moom sol na yére maam alaaji woo ko mu ñëw mu yow xanaa waxuñ la ne damaa wax ne bu kenn daloo te aset ji weesu bàyyi ne ko bàyyi xanaa lu ma moom mu ne waaw yaa ma mbubb mi waaye aset ji mu ne yàlla moom asetam ba saa yu ko neexee mu indi aset ni moomee asetam ba saa yu ko neexee mu indi ko noonu laa moomee sama mbubb bi ma saa yu ma neexee laa koy sol mama laa ji ne pat nga leen eh bu leen ko toppandoo bokkut de denc leen seen yére yéen Ibrahima mi bokkut ak yéen de kon moom xamoon na bu baax doomam ji di Mawlana Cheikh nga gis ne noonu la peegee ci bàyyam xam-xam yàpp ci ndawam waaye bëgg jàng. koo ko fekk mu ngi yër mu ngi gestu mu ngi ci jaamu yàlla mu ngi wéet di méditer ci yàlla wax nañ ne benn bés ci Kossy dafa dégg ay taalibe ñu koy jëw naan moom day dañ koo sol rek waaye jàngul bàyyi mii dañ koo sol rek waaye jàngul ndeke bàyyi dégg na bàyyi na ah ngeen ne jànguma jàng naa bay bëgg a dee xanaa sama xel mee neexul rek ndeysaan gis nga moom ñi muy oyofale ko moom xëy na xel bee neexul rek waaye jàng naa bëgg de wax na dëgg jàng na ko ndax yaa asta mi ko daan taalal sondel yi ca yi ñetti sondel taal ba bi mu sëgg ci téere yi ak di taalif di tagg yonent bi ba téere yi jeex ba sondel bi jeex mu taal beneen ba mu ne ci ba ba mu jeex mu taal beneen te mag ñi dañ doon wax ne guddi ñetti sondel la yaa asta moom de moom xam na ne jàng na ko bëgg de conseil boobu lu ne jàng na ko fa waaye nga gis ne liggéey na fa ci xam-xam liggéey bu rëy rëy rëy rëy daanaka booy xool taalifam yi ak liggéeyam ci xam-xam yépp koosi la bi mu def ci Cheikh na Tidiane yi kayfa yaxlu ba'da al-firaaqi sawaawu koosi la ko bind 1924 ruuxul adab bii nga xam ne mooy téere bi mu bind ci bind la bokk moom it 1924 ñu bëri dañuy wax 21 waaye 1924 wér waxoon naa ko ci benn waxtaan ak ku dajeeg man ñeme bu ko dee dama sëñ bi yow da de ma ne ko ah ma ne ma yow nga ne 24 la bàyyi bind wala de 21 la de ma ne ko 24 la. wali ba neex daa waaye seen sana moo leen moo leen sànni te boobu borom su ma ko wax waaye bàyyi la mu wax ca mujj wax la def moo wér. fii fi aami itnaini wa arbaina baada talaati acharatin miina loolu mooy 1342 boo ko xoolee 1924 lay tolloo mu ne ma loolu de seetlu ma ko ma ne ko waa da nga dem nga seetlu ko da nga dem nga seetlu ko nit ñi dañuy sonn dañ dul sonn ci gëstu boo pare yàkkamte wi di nit fekk yow gëstu nga bay bëgg a dekk wax rek benn waay toog rek añ añam bu neex ne waa ji li amul loolu dafa yow bu toog noonu basar mu bind tolloog ay 25 jëm 26 1925 26 nga gis ne booba 25 ans lay am rek xoolal ni mu ci résumé si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyiwul dara ak xasida yu bëri yim def yëpp jamono boobu la ko def ci ndaw abal xalbu bi ñuy mag ñi daan tuddee bàyyi diwaan foofu la ko bind abal xalbu kaasirul bas mu ko bind moom itamit ci 1350 ci hijri bi même Euh, surul akbar téeréen bu yéeme bii nga xam ne sukkandiku ci nee na ci benn référence feeb yàlla bay sotti ci moom rek muy sotti téere boobu mu ngi ko bind koo moom i tamit ci 6 rajab weeru rajab yi ñu génnee la ko bindoon 1352 mu mil 1333 1933 1933 la bind surul akbar Faydul Ahmad yi fi Mawlidul Muhammad yi bi mu bind ci affaire gàmmu moom mu ko bind moo kaasif bi Thierno di ma fàttali ñoo bokk at Faydul Ahmad yi fi Mawlidul Muhammad yi moo kaasif ñoo bokk benn at mu leen bind si euh, kitaabu tasrif moom it mu ko bind ci at moo ci ci ci maanaam ci koosi laa bëgg a wax mu ko bind ci koosi lu ci même at mi waaye nga gis ne moom it bind na ko ci koosi ci ay de yooyu de kon te ci benn bés la ko bind yebal taalibe yi ñu dem di ko bayali tool moom mu des ci kër gi biñ ñëwee mooy leen yéen de xeer ngeen ma waaye man it naa leen bi téere bii laa leen bindal muy kitaabu tasrif mu résumé ci mbooleem conjugaison muy saf ba gis kon dund bi ni mu lépp liggéey xam-xam la lépp joxe rek la joxe bu amut taxaw joxe rek ak liggéey bu àndul ak taxaw radiyallahu anhu noflaay amu ci deux heures de temps lay nelaw ci ci ci vingt quatre heures yi bu ko rëccee ci vingt quatre heures du ko fay ndax li mu bëgg a def ci jamono mu ne xajul sax ci jamono kooku moo daan Cheikh di tagg Cheikh na Tidiane yi ca Kóosi rek di tagg Cheikh na Tidiane yi rek xasaay di nga gis mu def ci Cheikh yëpp ci Kóosi la ko bind Baye Modou Baye Omar ci Fatou Diallo mu ne Baye ci Cheikh la njëkk a dugg nekk ci ab diir génnut Cheikh rek lay tagg ba keroog nag bi mu demee ba wax ne maxaqat zaatu cheikhi zaati yi awsaafun lahu awsaafi fa kulli habaaw ci hamsiya ba ca miimiya ba mu ne fa kulli maxaqat zaatu cheikhi zaati wa awsaafi lahu awsaafu lahu awsaafi fa la génn nag commencé di tagg léegi yoon bi salaa sallam génnaatul ci yonent bi nag ñi mu wuy ji boromam radiyallahu anhu tagg cheikh tagg bu ne di sàkku ci moom may ba benn bés ba mu waxee baytam boobu ne wa ana saadiqu xubbin la ara tijaani wala du boobu daf ba mu waxee ne wa qalilul xubbi cheikh yi maa kafaani maa kafaani bàyyi Cheikh Omar dégg ko ne xëy kii moo xër moo rëy xool barikalla moom li ma am yëpp ba léegi mu naan xalilul xad yi ak li ko yàlla defal yëpp kii moo bari kan la kii moo rëy xol ma ne ko ku war a sédd àddina yëpp da ngaa war a rëy xol koo xam ne àddina bi yépp yow la ñuy xaar nga sedd leen boo rëyul xol de man xaw ma ku war a rëy xol booba mu ngi waajal faydu bi nag di tagg cheikh di tagg yonent bi di tasaare xam-xam di jàngale di firi alxuraan firi alxuraan mu yéeme moom ci cause yi mu ngi ko foofu la ko firee woon ci année vingt neuf di jàngale ba foofu la forme kàngam yi formé yëpp nga xam ne jamono gisul ku mel ni ñoom Seydi Aline Cissé sëñ Ousmane Ndiaye Baye Cheikh Omar Touré demet ku lim doon dajal ñooñu ñëpp ci fatra boobu la leen formé parce que xam na ne lii di waaj ñëw muy faydu bi xam-xam moo ko war a taawu. foog ñu lay taayalee ko xam-xam ndax weddi bi dana bari inkaar bi dana bëri bu ko waajalee wut xam-xam yëf yi dëgg-dëgg du mën a am fu mu wàcc fayda baa ngi waaj a si nag bàyyi koy déclaré bàyyi yàkkamtiwul dara léppam daf ko bàyyee yàlla bëggut a feeñal lu may lu yàlla feeñal waaye nag bu ndigal jotee mu wax dem na benn bés ci benn dëj ñu ne njaayeen kàdd la mu wax ne Cheikh na Tijaan yi de waxoon na leen faydu bi dina feeñ maa leen xamal ne faydu boobu noonu léegi mu feeñ dégg naa keroog mag ña teewe woon dëj ba ba bàyyi ñibbee mag ña ba ñibbee ñoom ñëpp aji seen jawaayu maal yi ku ne ña ngay fëgg kàggu yi rek law jawaay daal yi pët doon kenn liiru leen waaye dégg naa keroog jawaay def di di di di bi pour di wër foog ne danañ gis jawaay maan yi mag ñi dugg ci gëstu mu métti ndax li bàyyi wax taat yi fay te xamul fu mu nekk waaye man ca Ifadal Ahmadiya Ifadal Ahmadiya ci la lekk mu dem ba mu yàgg fekk sëñ Ibra Fall moom teel naa jàpp ci moom dafa ñëw ci bàyyi ne ko man daal yaa ma doy tax naa la sama bopp. waaw àddina bi yaakaaruma ci kenn ci wàllu yàlla ku ma yow bàyyi ne ko ah nangu naa de waaye damaa am charte man day sama charte mooy dëggu ak dogu taaliku dogu dëggu daal waruma koo jëriñ lu ne nag li ngay wut si yëpp mu ngi ci man dogal nit kiiraay yomb na ma àggale nit ci yàlla yomb na ma defar nit ba mu fees dell ci wàllu yàlla loolu moom yomb na ma fekk nga ko fi lépp ngi fi waaye nag charte bi mooy dogu ak dëggu Bayero Fall ne ko dogu naa dëggu na mën na ko baax na kon nañu ànd sëñ Ousmane ko ko ci teel ne ko demal ca moom feneen la jëmoon ci Baye Cheikh Omar eh, Cheikh Omar si biñ daan wax Cheikh laa ca la jëmoon pour jàngi xam-xam rajo bi ne ko demal ci sëriñ ba ndax des na tuuti ko ànduloon moom da nga des gannaaw da nga tàll te yow bi rëy bi ni ñu ko waxee yóppil sax yópp eh, buubal bu rëy bi ko bi gën a rëy bi ko laaj maam defal te mënu ko ko fay mooy li ko tegtal bàyyi mu teel a ñoom ñaar ñooñu nag ñu toog bàyyi ci kuusi benn bés rek bàyyi na waaw ana Ibra Fall mu ne maa ngi ni ñees ana sëñ Ousmane mu ne ko maa ngi ñees mu ne leen dama a bëggoon a ne ko waaw mu ne yàlla dañ ko war a xam ne xam ngeen loolu ñu waaw xam nañ ko de mu ne waaw yéen li tax bu ngeen jéem a xam yàlla ne ko bëgg nañ de waaye dañoo xamul mu ne leen dama leen a bëggoon a bindal am na daal waliyu bu nekk ca penku arab bu yàlla may la ci àggale nit ñi ci yàlla ma yebal leen ci moom mu tarbiye leen ndax danaa yéen naa leen ngeen xam yàlla gis nga sëriñ bi de sëriñ sëriñ sëriñ nag léeg-léeg dafay imtixaan taalibe yàlla nañu yàlla nag dafal tawfiq ci imtixaanaatu sëriñ si ah ni na Cheikh Ibra Fall ne ko man de yaakaaruma kenn ci loolu ku may yow bàyyi ne ah Ibra Fall moom wax dëgg lay wax su ma la jaayee loo wax mu ne ko sama mag li mu wax rek laa wax bàyyi na waa baax na dem leen ñu dem bañ demee keroog la wax ne fa buqaatu haadi daari sammi bulaydatan wa arju biha faydal fuyuudi ila sahbi bulaydatu fetxin qad yakunu li fityati bi fadli ilahi duna shakkin wala raybi daal di wax na aleykum bi tehdibi nufus waaw ah, na ngeen sellal xol yi daal di ne bulayda bii di koosi maa ngi yaakaar fay bu baawaan fii ba sama ndaw yi nii naan ci yàlla keroog la def boobu ñu dem ba mu yàgg mu taggaat Cheikh na Tidiane yi benn xasida mooy xamaamata euh, waadi daw yi waykil asdia yi taxaraka li xubbu Tidiane yi marza yi ba ca biir mu ne وتأتي قريبا فيضة الختم هيئوا بتفريغ أغيار فتحظى بموضعه na ngeen xam ne fayda faydatu Cheikh na Tijaan yi bi mu digee woon léegi tey mu ñëw waajal leen ko ni ngeen koy waajalee mooy da féexal xol yi ci bokkaale sellal xol yi ndax mu am ndab loo xam ne dana ci mën a wàcc ndab lu ko loolu wax na ko ñu dem ba mu yàgg nag ni fayda bi mu ne radiyallahu loolu mu nekkoon samedi 17 mai 1929 fii ci tey ci ci Niassène ca gàmmu ga ca fajar ga yonent bi salaa salaam fii bàyyi na ko déclaré fajar gi jot na keroog la déclaré ne maay borom maay Cheikh Tidiane tey ci kaw suuf ku ko jox loxo jox ko loxo ku ma déglu déggee ci Cheikh ku ànd ak man tey nii maa gërëm ci yàlla fajar Cheikh waxoon maay borom coow yi ne pour eh déclaration bi loolu déclaration bu dee ñëpp jaaxle sëriñ si yëpp mag ñi jaaxle. keroog bu defee déclaration bi te wax ne wa inni araa man faytuhu l-yawma faa'idun wa lam yalqa dhaa qalbin nadiifin kon faydu bi takk na faydu bi nekk faydu boo xam ne dëgg-dëgg li ko tax a mooy dogal ni ñi kiiraay ci jamono boo xam ne jamono bu lëndëm la jamono. bu gëm yàlla manqué la jamono bu tiis la bàyyi yàlla xéwalee nit àddina bi moo ndir ñu fayda boobu ñii di dëggal ñii di weddi waaye moom mu sax ci lim nekk rek waxoon na ne bi xawlillahi wa quwwatihi laa yamsikuha ahadun wa laa yaxbisuha shay'un wa man araada an yunaffira annaasa anha fa innama yunaffira annaasa anhu laa anha mu ne dara mënta fere na faydu bi te loolu mu ngi ko wax ci at mi topp ci at yi fayda bi eh, eh, at at bi fayda bi fee ci déwén sa rek la wax def déclaration ne fayda bi dara mënu koo fere képp ku yaakaar ne mën ngaa tere nit ñi ci sa bopp rek ngay ngay ngay gàllankoor waaye mënoo gàllankoor nit ñi foofu ñu tàbbi ci dem ba ne dina daj àddina kap fépp fu tariqa tijaani yi àgg ak lislaam dina fa àgg waaye man damaa wax sax ne fayda bi sax léeg-léeg am barab yoo xam ne moo fa jiitu lislaam ak tariqa bi yóbbu wala moo ko jiitu tariqa bi place yu bëri moo fa yóbbu tariqa gi nii tariqa bi àggu foofu fayda baa fa tasaare barab yu bëri ci Asie ak barab yu bëri ci Ghana ak feneen am feneen amuñu woon Ghana nga xam ne ba fa bàyyi di njëkk a ñëw tukuraat amutoon kenn ku yëg yëgul sax ni lislaam am na bàyyi moo ko wax maa bayna Ankara ila tukuraat yi maa balaxat hum daawatun min haadi li ko dalee ankaraat tukkaraat yëguñ sax ne yonent bi jaaroon na fi indi lislaam ba mu fa desee daal di ne wa ankara fiha wa nukruha fi hadihi taxayara moom moo fa desiwaat ankara nag fekk mu soppeeku kon euh, gis nga sangi ba xaaj faddal ñees nga gis ne ankara ba mu fa njëlee gaana moo fa dugal islaam dugal fa tariqa kon lam waxoon gis nañ ko fayda bi daj na àdduna kap ñu weex ak ñu ñëw du ci dugg nit ñaa ngi àgg ci yàlla aarifuna yaa ngi ne gàññi alhamdulilah te loolu mënutoon am lu may ci faydu bi tey tey tey ku dugg ci faydu bi maarif ilaahiya yi nga xam ne nii moom la leen faydu di jëriñoo ku dul ñoom ko loolu la yàlla def dafa am benn aarif bu ko wax mu ne yëf yi ni mel njëkk bàyyi di feeñ mu ne teen la teen bi bu njëkk ñetti mètre la woon ñu dem ba mu yàgg mu nekk ay si six mètres di gën a gudd rek léegi mètre ya nga xam ne ñoo doon jot ndox mi njëkk faydu bi di feeñ mètre yooyu noonu léegi bokkut ak mètre yi nga xam ne moo jot ndox mi bi faydu bi feeñee léegi foog nga am mesure faydu bi wala doo mën a àgg ci ndox mi loolu na ko ñëpp xam faydu bi ku bëgg dara ci yàlla ci ngay ñëw léeg-léeg nag barkeem nag ñëpp a ngi koy jëriñoo tariqa bi am na barke boo ci nekkee même boo nekku ci ñooñ faydu baax na am na barke waaye nag ku bëgg ndolal ci yàlla faydu bi ci ngay te faydu bi ñëpp jëriñ na leen bàyyi dafa wax ne mu ne wa ahlu zamani kulluhum faasa raqiyan siwa man xalaana ji asira hawaayi ku bokk ak man jamono rek danga am ci barke bokk gi nga bokk ak man jamono da nga am texe ku dul ku bañ am na ñoo xam ne léeg-léeg nga dégg koo xam ne sax du ci ñooñ fayda muy wax ay maa muy sàcc di wax ay wax yu saf yàlla ak yooyu ma ne yooyu yëpp ci barke faydu bi la rek même bu ko xamul moom faydu bi jëriñ na sax ñu ci bokk xam nga lu mel mu ngi mel ni miskin bi nga xam ne amul lu mu jëndee ndaw miche mu jënd mburu dem dend ak lakkkat bi lakk mèche wi jël mburóom mi dendale ko ak saxaar si pour mu xeeñ ndawal li mu lekk ko loolu mooy ñi nga xam ne nii bokkuñ ci faydu te léeg-léeg yëf yi di leen xaw a xeeñ euh, ñi ñooñu sax loolu de leen yokk bëgg yàlla dana leen xiir ci yàlla bu amee sax sax bu yàggee loolu mën na leen a omat indi leen ci faydu bi kon faydu bi jëriñ ne ñëpp jëriñ na ba jëriñ sax ci wàllu zahir gis nga avion yi di naaw ak technologie bii ak tubaab yi découverte yi ñuy def yépp ci barke faydu bi boo ko waxee nag ñuy foog ne da ngay wax lu la neex waaye fekk na ne aarifuna yi seen xaatir yi ci yàlla ak dox bi ñuy dox ci yàlla léeg-léeg fu mu àgg rek ci baatin day am feeñuwaayam ci zahir day am feeñuwaay ci zahir waaye bu doxut baatin bi àggutoon fenn fii doxu zaahir bi du fa mën a àgg moo tax gis nga xarnu bi bàyyi nekk muy siècle baay bi vingtième siècle bi gis nga ci la xam-xam ubbeeku technologie bi ci la dox avancé loolu yëpp ci barakaatu saaxibul fayda la moo ubbi afaq yooyu ci la ne bokk parce que dañoo wax ne xarakaatu zawahir barakaatu sarair xarakaatu zawahir barakaatu sarair barkeel bi ne ci baatin baatin yi nit yàlla yi ak seen baatin moom mooy feeñ ci doxini jamono bi ci zahir sax bàyyi nag ma bëgg a wax tuuti pour tënk ndax waxtu waa ngi dem ne fay doom bii dafa nekk loo xam ne dafa ñëw pour yeesal sharia al muhammadiya yeesal tariqa tijaniya yeesal xaqiqa yeesal lépp lu fi nekkoon moo tax moom du sëriñ boo xam ne dafa nekk comme style bi mii ne woon sëriñ bu njëkk nga xam ne da ngay toog sëb sa jaada rek téye sa cours yi jàngale rek yem ci say tool rek ak jàkka ji déedéet moom mu ci loolu yëpp côté boobu du booy day mat sëkk da ci def loo xam ne kenn mënu koo def moom waaye dafay jaxasoo ak àddina bi yëpp di dem fu ne tey ma nga Lagos suba ma nga Ghana gannaaw suba ma nga Makka gannaaw suba ma nga Égypte ma nga ba fa na a ci bopp àddina bi ngir tase ak nit ñi jëriñ leen parce que xam na ne bu toogee Kaolack gi a Kousi am na ñoo xam ne du ñu mën a jot si ci moom duñ mën a jëriñoo li mu yore mu jóg fekki leen looloo waral tukkeem yu bëri fu ne dem wër na ci àddina bi fu ne dem na fa. am na benn naari gànnaar bu ko gisoon fii ci atami mujj yi ndeysaan boobu mag dugg na néew na doole naar bi ne ko waaye bàyyi ci tukki rek. mu ne ko Cheikh Ibrahim yow léegi màggat nga jot na nag léegi nga noppalu coono yi ngay teg sa bopp àttanatoo ko bàyyi ne ko ah, allahuma xalaqani li raaxati yàlla bindu pour noppal naflaay nga kooku déggul bàyyi muy tukki rek nekk sëriñ boo xam ne nii international la universalité bu lislaam la donn lislaam dafa ñëw pour arsalnaaka ilaa rahmatan lil alamin moom loolu la donn àddina bi yépp ñoo war a jëriñoo li mu yore du Sénégal rek ëpp na loolu muy dox di jaxasoo ak chef d'état yi tuur sëriñ bu seexlu ay politiciens wala ay chef d'état parce que kaamil la am na sëriñ si ñoo xam ne dañoo jàpp ne buñ jaxasoo ak nit àddina sax seen leer wàññeeku loolu manqué la waaye mat gim mat moom moo tax mu mën a jaxasoo ak ñëpp te du ko yàqal dara ci dund bi muy dund ak yàlla dund dund yàlla parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy kim donn yonentu dafa wuteeg ku dul moom Seydina Moussa alayhi salaam ba mu demee tuuri Sinaa dealeeg boromam ba mu ñibbisee dafa am 40 jours yoo xam ne bu déggee kuy wax xel mi day teey muy wëccu ngir wax ji ni mu naqadeeg moom parce que wax yàlla ji nga xam ne moom la mu joon a dégg moom la moom la moo moo ne ci noppam ba léegi mu koy tàqamtiku muy wëccu xoolal loolu bu gisee bëggul sax kenn xool xanamam ndax leer gi ko dugg mu bañ mu indil nit ñi fitna waaye yonent bi salaa salaam mi mat mi gën a mat parce que Moussa dama wax ne du manqué waaye yonent mi gën a mat moom dafa jóge Isra wal Mi'raj ñibbisi ci saa si rek di wax ak mushrikuuna yi ca Quraysh waxut ak sax ñoom Abu Bakr ñoom Aliyin ñoom Abu Jahl la njëkk a wax ba ñëw ci Abu Bakr ne ko eh sa waa ji tey moom waxati na wax joo xam ne daal xanaa bii moom dëgër ko ci dëgg mu ne Euh, arash dem mustawan da dem asamaan dem asamaan kon dem na dem muqaddis mu ne leen bu ko waxee rek am na waaye li misaal bi mooy moom dafa ñëpp si rek di wax ak nit ñi kooku la bàyyi doon moo tax bàyyi mat gi moo tax mu mën a jaxasoo ak ñëpp ngir defar nit mu def ci dundam boobu loo xam ne kenn mënu koo dajal lim def ci dund bi xajut ci boo xoolee emploi du temps fii ci bés bi li mu daan def ci bés bés bi danga naan lii naka la mën a xajee ci bés baay bi wax na ko ci majlisu nazim yi majlisi duru nazim fii majlisi na ma Cheikh Ibrahima dafa mag ñi mu ne leen damaa bëgg ngeen yokk seen itte yokk seen awraat yi yokk seen awraat yi ndax man gis naa ne sama wirdo yi bu doublé woon ay yooni yoon waxtu yi ma koy def du yokk kooku kuñ tawil jamono la mu ci def lu ko neex waaye bu dul woon loolu bàyyi li mu def ci jamono xajul ci jamono yow koo xam ne nii génération yi génération yaa ngi di jàngale yaa ngi jàngale yaa ngi firi alquran ay ci limu firi yu limu yaa ngi gàmmu yaa ngi taxawee néew yi fi jógee yaa ngi dem di jaale seeni bopp yaa ngi takk sëy yi yaa ngi ci waxtu yu juróom ci jumaa ji doo tardé benn waxtu yaay waxtu yëpp yaa ngi nit ñi koy bokk julli jumaa ji yaa ngi ci géew wasifa bi yaa ngi ci si ajuma ji yaa ngi ci tool yi boo xoolee lim def ci taalif nga ne lii rek waroon naa jeexal dundam lim def ci jàng ak jàngale waroon naa jël dundam lim def ci toppatoo mbokk waroon naa jeexal dundam koo dem mu ne la mbokk moo dem mu ne la bàyyi ñëw na fii seet si ma benn détail du ko du ko fàtte du sàgganee dara sama bàyyi def na ma xattaa sax ñoom njëkke moom moo la koy tànnal booy jël soxna moo lay tànnal soxna ne la diw ak diw ñëw sa njëkkee boo dee jigéen soxna yi sama yaay yi suñu yaay yi mu ne la yow nijaay seen mooy sa càmmiñ détail yooyu sax bàyyi ci nekk yooyu nu mu xajee ci dundam daf lay jaaxal sax boole ko tukki yi Nigéria buñ gaggee yaa leen gàggante problème bu ñu am danañ la bind nga tontu leen te booba poste amul internet wasaayil yi am léegi amul doo xam sax nu mën a jokkaloo ak àddina bi yëpp di leen gàgganti di régler seeni problème yëpp Mauritanie noonu gaana noonu ba mag dundam gi daal buñ ko toppee dafay mbokk yi Euh, wax ju guddi bu bariwul waaye euh, baaxul waaye bàyyi moom luñ mos ci moom rek mu doy dañ doon fàttaliku dundam gu tedd googu rek nga xam ne lépp ay durus la ay jàngat la war nañ koo jàngat ndax ma dama wax ne dundu baay ba léegi jàngalee jàngataguñ ko ba léegi baay lépp Cheikh Ibrahim Baawul Abdullahi borom xam-xam bu mag la ci Mauritanie tey ci ñi raw ci gànnaar la dafa maa wax ci Dakar barki démb mu ne ma Baay Ñas ba léegi jàngataguñ dundam gi Baay Ñas ba léegi bindaguñ dundam gi téere yi ñu bind ci moom yëpp bindaguñ ba léegi xayaatam xayaatam dañ ko war a diraasa jàngat ko bind ko ndax ba léegi bindaguñ ko mu ne ma ba léegi jàngatuguñ bàyyi te wax na dëgg mbokk yi kon intellectuels yi ñoom docteur Anne ñoom Thierno Amath loolu seen warugar la ñu jàngataat bàyyi fexe ba jàng ko jàngataat dundam jàngal ko génération yi ñëw ndax dundam ci la solution yëpp nekk jàngale dundam ci la solution yëpp nekk loolu tuuti la doon barkeeloo ci guddi gu tedd gi di ñaan yàlla subhaanahu wa taala eh, mu takke ñeeg bàyyi rek tënk ñi ci keppaaram rek saxal tëbbam ci ñun rek may ñu jokk koo xam ne dagg du ci topp mukk def ñi dëgg-dëgg taalibe may ñu cofeel ndax mbëggeel mooy lépp mahabba mooy lépp boo ko bëggee rek yaa ngi ànd ak moom te ko ànd ak moom fu ne da fa dem fu ne da fa àgg looy wut lu ne da ko am lu ne da ko gis ndax leeram moo lay niital moom moo lay ñot di di la yóbbuwaale yaa ngi ànd ak moom rek alhamdulilah bi nga xamee ne ñun ñu ngi ko moom rek lañ bëgg yàlla na yàlla saxal ci loolu conna maar ñu ngi lay ndokkeel beneen yoon di la gërëm ci occasion bii nga ñu may ndax man damay wax ne li ma defal ah defe naa ñu bari sax xamuñ ko yow de xam naa xam nga ko waaye ñu bëri xamuñ ko ndax Boubacar gi mu bokk maag yow Cheikhul Xayri Mawlana Cheikhul Xayri mi ñu bokk damaa waroon at mu jot ma dem TV Saladin avril waaye yàlla lu mu dogalul du am nattu jàpp ma ma koy tardé waaye damaa jàpp ne saa yi ma ñëwee fii sa jotaay bii rek maa nga Boubacar ndax yow amul sikk ne sa jotaay bi mooy Boubacar amul sikk ne ku la gis-gis na Mawlana Cheikh Khoury euh, kon maa ngi lay gërëm ci loolu di la sant di sant mbooloo mi yëpp di leen jéggalu ci wax ju gudd ji waaye gannaaw ci bàyyi la xam naa moo tax ñëpp di ma déglu ndax nit ñi moom bàyyi rek lañ bëgg te fu ñu koy tuddee rek xol yi yëpp dañuy dund fu ñu koy tuddee rek yàlla day wàccee ay yërmande nit ñi seen seyru ak seen taraq yi dafay yokk ci yàlla kon yàlla yàlla may ñu itte ci liggéeyal ko ak bëgg ko te yàlla may ñi bu déwénee ñu teewaat fii ñun ñëpp kenn bañ a manqué te fekk ñi ci mbir yi gën a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ولتعتفي بنصرة تأتي لنا بالصفا ورضي الله تعالى عن مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني خاتم الأولياء مميت من كبر الفيضات وعن وارث على الإطلاق Abul Ishaq Mawlana Cheikh al-Islam Alhaji Ibrahima Niass radiyallahu anhu amma ba'd سمعت المسائل في أصحاب المعالي والسعادة آبائي والأمهات ضيوفنا الكرام أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه القصيدة الرفائية موجهة إلى شيخ أحمد بن أتانا الله عمره هي من قريعة طارق أحمد نجاي خريج بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المفسدين والمفسدات أعطم القصيدة إلا كوكب الإحسان أنحو تحيتي إلى كوكب الإحسان أنحو تحيتي ببحر طويل وسفينة سلتي أيا سيدي سمس الندى قرق الحدى لك العهد لا ينزى بسنقال سيقتي إلى كوكب الإحسان أنحو تحيتي ببحر طويل وسفينة سلتي أيا سيدي سمس الندى قرق الحدى لك العهد لا ينزى بسنقال سيقتي إلا أحمد سيق السماعة جهبزي إلا أحمد سيق السماعة جهبزي ومختصوي الحاجات لب النفعة إلا أحمد الروح محبة سيقي إلا أحمد الروح المحبة سيقي وقادم أهل الفيدة من كل وجهة وقادم أهل الفيدة من كل وجهة إلا أحمد منهاج العرفان مسلكاً ومقدما بصدق نحو طريقتي إلا أحمد منهاج الحرفان مسلكا ومقدما بصدق نحو طريقتي وتربية بحسن وتيسين جذبتي وترقية في الحضارات جم القداسات أيا سيدي مست المواحد منة وذا في القلوب ناس بسر منهتي fa kam taalibin atfaxtahu min nixmatin wa albastahu min mahdin bi jamalati ayaa waarisal majji fa jut lii mahabbatan ayaa waarisal majji fa jut lii mahabbatan wa hadiyan wa tawfiqan wa xusna qitaamati بذلك يأوي كل ضاء و... بذلك يأوي كل دان وعامتي وكولق يهوي منك سماعة الحقيقة وكونك يسدو منك مدحا مسرمدا لتوفير الآداب ونسل حلاقات فبرهام عبد الله لا شك أنه حبيبك حقا حين تحيي السريعة فبرهام عبد الله لا شك أنه حبيبك حقا حين تحيي السريعة وحبيبك حمام القوم ليس الكتائب ومنهج الفضل سيق الخير كفدتي وحبيبي أمام القوم ليس الكتائب ومنهج الفضل سيق الخير كفدتي ضد الله عن سيكي وأهل المودة وآل وأصحاب مد نسم تحياتي إلى كوكب الإحسان أنه تحيتي بركيب سبي عند البحر طويلتي أقدر ومقدار العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 اقضي لنا بهذا المحضر بل تعطفي بنظرة تأتي لنا بذفر وبعد gannaaw sant yàlla julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi wax ci suñu ndigale ndigali kilifa Cheikh Abdullah nga Cheikh Hussein ak rakkam Cheikh Mouhamed Niass di wax ne fii daanaka amuñ fi benn kàddu ndax al alim al allaama al faqih al shaacir al adib al mufassir eh, nga xam ne kàngam la ci kàngam yi dëkk bi ci xam-xam monsieur Ahmed Boucar bàyyiwul dara ci waxtaanam bi waaye li ñuy wax ci kàddu Cheikh Abdallah di gërëm rek Thierno Amath nga xam ne moo waral jotaay bi ndax lu nekk rek am na ci lu koy fu ko yàlla di jaare te yonent bi wax mu ne bokk na ci doom ju baax fonk say kóllëre baay bëgg tim say niti baay ku sa baay bëggoon rek nga bëgg ko doom ju baax ku bàyyam bëgg rek daf ko war a bëgg loolu soo gisee ni ñëwee ci jotaay bi tegtale na coobare kër ga kenn desut pour ñëw pour war na Amaat ne ko fi nga tegoon coobare gi <clears throat> te tegoo ko fa bàyyi nga fa teg ndax coobare gi moom ku ko bëgg rek bàyyi nga bëgg képp ku am connexion tim ci Cheikh Ibrahim te mu wér danga ko bëgg ndax moom léppam baay la lekkam baay la naanam baay la koddaayam baay la dem na ba néegam sax fi muy jàkkaarloo di koy xool dafa mujj foté baay la fay def baay rek lay jaloo kon nag su ko Thierno Amath bëggee baay rek la bëgg te su fekkee ne ay nit da ngeen bokk bëgg-bëgg pour ngeen ànd dafay yomb comme Corna Amad dafa jeex ci Cheikh Ibrahima radiallahu anhu coobare gi tim am connexion bëgg Baay radiallahu anhu loolu moo leen takkee woon loolu moo leen boole woon moo tax ñun njaboot gi ñun ñëpp ñu ñëw tey pour feddali kóllëre googu ci ndigali Cheikh Abdallah di suñ mag di suñ kilifa ñu ñëw pour feddali kóllëre googu di ko wax ne lépp luñ nekk rek lépp lum nekk rek ñu ci nekk ak moom ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla def tawfiq ci jotaay bi ba beneen yoon suñ koy def kenn du fi xat ñu ngi ñaanal yàlla Cheikh Ahmed bu Tine yàlla defal ko gudd fan ak wér ndax li mu wax amut kenn koo xam ne am nga dara loo ciy teg wax naa ko ne ko niqaat yi nga xam ne moom nga dem tomb muy conférence bi nuqta bu nekk rek doyoon na yóbbal ndax amul dara lu mu bàyyi jàngal nañu ne liñ am doy na walis ñuy roy ñoo xam ne waruñ leen a roy di sos loolu jàngal nañu ko ci waxtaanam te wax na dëgg bàyyi li am doy na walis ñu koy ñu koy utal leneen damay wax ne Cheikh Ibrahima radiallahu anhu soo ko xamut moom wax na dëgg ndax wax na ne moom ak Mouhamed Abdallah wax nañ ne ba léegi jàng jàng guñ dund baay loolu dëgg la ndax su fekkee ne ñi nekk xaybu ñi nekk xaybu di ay awliya ñooy tegtale seen taalibe yi Cheikh Ibrahim radiallahu anhu Corno Xasan Dem radiallahu anhu bi muy ñëw ci baay sëriñam bi nekk xaybu muy Corno Saidu Shuara moo génn àddina ci xissa bu gàtt rek tegtal ko baay wax wax ko ne ko idhab ila kawlax wa ila alxaaji ibrahim Niass laysa ala dahri l ardi man huwa alamu minhu billah su fekkee ne sëriñam bi nekk ci xaybu moo koy tegtal ne ko ku em ni bàyyi nekku fi kon waa xaybu ñooy tegtal seen taalibe yi ne ku em ni bàyyi nekku fi kon kay li Cheikh Ahmad Boucar wax dëgg la ko Ibn Baye nekku fi waaye yàlla ñu yàlla def ñuy dëgg dëgg taalibe yàlla yàlla yokk suñ bëggeel ci Baye def ñu ñuy taalibe yàlla boole ñu ci ñi nga xam ne askan du leen xiit ndax sëriñ bi lim indi képp ku doyloo yow moom a dëkk Medina wala ci moom nga bokk taalibe yi dañuy danañ jëriñu nga nekk fee di mer rek nga nekk fee di mer rek fekk yëfi yi rawante bi li Cheikh Ahmed Dame waxoon coobare gi koro bi bàyyi génnee àddina ci zaahir mu ne ko jëmmu xijaab bi moom la ñuy suul tey waaye li des tey mooy maqaama bu mat bi te maqaama boobu rawante bi du fenn lu may ci bëggee rek mu ne ko Ahmedu ne moom départ na du nangu kenn raw ko déggal wax boobu te kiy wax loolu mooy ñaareeli doomi bàyyi ci ndigg kon nga gis ne su fekkoon ne askan rek mooy yëf yi kon doomi ndiggam yi duñu wax loolu coobare gi daal ñu wax nañu képp ku jëf jëflanteeg bàyyi ci askan da perte ak koo mën a doon ak koo mën a doon kon ñu ngi jéggalu ci kàddu yi suñ toogee di wax ci seen kanam ñaar rek lay tegtale bi ci jiitu mooy oustaz Barham Diop jàngal nañu ne ànd ak naag Baye Pakistan ñu am fa conférence yu bëri waaye beneen conférence ba bi mu gisee ne ay xale ñoo ci gën a bëri bàyyi na ko oustaz Barham Diop demal nga waxtaan ak ñoom muy wax ci kanam Baye. loolu lii muy undu mooy Baye nga koy ñemeloo mi ngi koy ñemeloo kon ñoom it suñ nee suñuy kilifa ñu toog ci seen kanam di wax. loolu rek lay undu ndax wax ci sa kanam kilifa lu jafe la bi wax loo xam ne moo la ko gën a xam moo tax su ma Cheikh Abdoulaye waxee ma wax ci kàddoom ci làmmiñam rek lay waxee ni ci jub ci moom la ni ci manqué ci ñun la in uriidu illa al-islaaha ma stata'tu wa ma tawfiiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi parce que liñ fi dégg dëgg jotal na te bu ma waxee dañoo damay xajamal wax ji nga xam ne jib na fi wante nag dama koy tënk rek ci sant yàlla ak ak kontante boo xam ne tey kontaan naa ko ci géewu Maolana Cheikh Ibrahim di ndokkeel Corno ak conférencier bi ak mbooloo mi xandat di ndokkeel suñu rakk suñ doomi sëriñ suñ sëriñ di conférencier bi di Cheikh Boucar Cheikh Boucar bi nga jëlee di wax dama kontaan xam loo xam ne yàlla may na ma fekkee ko wax nga ne ma mag daara ji dama gis sa nijaay alaaji Abdoulaye doon sonne ci yéen pour ngeen am xam-xam mu am lu soxla woon ci Cheikh Nazir yàlla may ma ma fekkee ko bi ngeen di bëgg dem keer suñ papa alaaji Abdoulaye wax ko Cheikh Nazir seen kayit pour ñu prépare leen yàlla may na man jaamu kayit bi bu maa bind seen kayit yi ngeen dem keer yow ak taaxa ak cheikh sa naja El Hadj Abdoulaye bu ñëwoon dana kontaan xam ne tey lam doom bëgg ci yow alhamdulilah yàlla may na ko may na la ko muy xam-xam te loolu rek moo samp pay bi liñ fi wax mënu ci teg dara ngër maane googu ak kontaante googu loolu laa gis si nga xam ne lii mooy Medina lii la bàyyi fa kaw Medina jàngal liggéey jaamu yàlla xam-xam le te Cheikh Boucar yaa ngi ci yoon wi yaa ngi tiitaroo pay bi waaye pay baa ngi lay tiitaroo ñun ay yarakat la ñu ngi déglu dañuy tiit ci marina waaye nag laa yu xeer laaw maa bi xaw men xattaa taay xeeru maa bi anfusihim kon lii ñun sedd na suñu kool ñi nga xam ne ñun ngeen dénk tey jàng jàngale mooy maaxat alaaj Abdoulaye Niass boobu kon su ngeen ñëwee di wax lu mel nii nga xam ne moom lañ doon dégg démb ca bàyyi ak ca maam ya dëgg-dëgg kon alhamdulilah sant yàlla ñu ngi leen ndokkeel yéen sëriñ si yëpp gis ngeen bi ngeen ñëwee ba léegi maa ngi doxoonu maa ngi doxoonu jëfuma ko bàyyi laa xool ci yéen que loolu la ñu yore ñun ay taalibe lañ te taalibe lañ bëgg doon moo tax bëgguma guddal gannaaw boo xamee ne sang si wax nañ ñu ngi wax yàlla yàlla nangu ñaan yëpp liñ fi ñaan yàlla ko yàlla nangu Cerno Amadu ñu ngi lay ndokkeel ci yàlla rek lañ xàndee suñ xarit dara takku loolu bàyyi ñu bokk seen ah, benn teen nag seen i baag dañuy laalante mooy dañuy bokk ci bàyyi mooy euh, yàlla moo ñu takkee Mawlana Cheikh Ibrahima moo ñu takkee takkee boobu yàlla bu mu tekkeeku ba ilaa yawmu diin ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp. wasalaamaaleykum wa taala barakaatu balaa maa kii maa ngi gërëm Pape Diouf mi nga xam ne tim maa ngi lay seedal ne bàyyi rek la bëgg sa jawrin boo nga xam ne la mi ngi lay liggéeyal ci biir ak biti kenn du ko yebee ci yow jotaay bii dafa ne ma Nazir boo ñëw danaa la bàyyi ànd sax xam naa ne amoo jot bi ma ne ko danaa ñëw ngir yow ak Corna ak yàlla kon maa la eh, li nga xam ne moo nga nàmpal muy soo muy wax tal te raxu ci dara loolu lay wane ci biir ak biti mbooloo mi man xam naa leen ñeme naa leen am na lu ñuy wax ci mbooloo bu bàyyi waaye nag mbooloo mii moo man xam naa ko bàyyi ne na yónni bi ne na Cheikh Ahmad Tidiane ne na loolu mooy seen guddi mooy seen bëccëg wasalaamaaleykum taala wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp góor ak jigéen mag di jiital ci nuyoo bi ñi nga xam ne ñoom la yàlla jiital ci jataay bi muy njabootu Maolana Cheikh Ibrahim bi nga xam ne ñu ngi teew fii ci ron mbaar mi nga xam ne ñoom ñoo taaral jataay bi te ñoo ci def barke tamit eh, di nuyu abu <coughs> Aboubacar ñan mi nga xam ne moo doon def conférence bu am solo bi waxtaan woo xam ne waxtaan wu am solo la amul dara loo lu mu bàyyi loo xam ne mën naa jëriñ taalibe ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla. yokk ko may ko fanu gudd ndax bokk na ci tiitaru pay bi bokk na ci ñi nga xam ne waxtu wa leen dégloo sa xol sa xel dina dal parce que pay bi dafa soxla xam-xam pay bi dafa soxla taxawaay bu am solo ndax bàyyi moo toll noonu kon euh, si Aboubacar ñang ñun waxtu wu ñu leen déggee suñ suñ xel dafay dal ñu ngi ñaan yàlla yokk sa xam-xam yàlla yokk sa mëdët waaye yàlla yokk sa wér ndax yéen ñu war a am wér ngeen waaye di ñaan di nuyu sa rakk yi nga xam ne ñoo fi tew yépp di nuyu itam euh, Cheikh Thierno Ahmad Ndiaye mi nga xam ne mooy suñu jur mooy suñu sëriñ ñaari tànk yëpp la taxawee ci ñun wayjuur la ndax taalibi taalibi yëpp am na ci ñoom taxawaayu jur ndax ku ci sa bët xonq soo gesoo gis ko waaye sëriñ la ndax li tax nit ñi ñëw ci pays bii ak li tax àdduna bi yëpp di xañtu Cheikh Ibrahim bàyyi moomu ñu fi indi woon ak yàlla jooju taxoon ñu jog alhamdulilah ñu ngi ciy sant yàlla bu baax lépp luñ ci am ci buntam lañ ko rootee kon ñi ngi neyu Thierno di ko ñaanal yàlla fan wu gudd wànn ak wér kàddu yi du mën a gudd ndax ñun amuñ dara luñ fiy wax ndax li ñu waroon a wax yépp sang wax nañ ko bu taxu doon a ndigal duñ yëkkati suñu kàddu waaye ndigal moo tax ñu yëkkati kàddu maa ngi wax ci turu muqaddam yi nga xam ne ñi ngi aju ci jamaa bi yépp muqaddam yi euh, wax dëgg yàlla sëriñ bi kontaan nañ trop te sant nañ la gërëm nañ la bu ñu bëggee Cheikh Ibrahim ba àdduna bi yëpp tey fu sa taalibe taxaw ñi seedal ko ne dafa bëgg bàyyi ci ci loolu ci yow ci yow lañ ko nampé te mbëggeel googu tamit yow yaa ngi ko nampé ci Maulana Cheikhul Xayri mi nga xam ne dafa wax ne sarfu dumu'i ala siwaahu mazallatun faskub dumu'aka isbi ta taaloq Maulana Cheikhul Xayri nee na tuur rongañ te bàyyi ñas taxut loolu jaaduwut nee na kuy jooy bàyyi moo tax nga war a jooy Cheikhul Xayri moo ñu ki dem ba wax ne su ngeen mënta doom doomi baay bu nekk un moyen sax fexe leen kenn ku ne ci yéen ngeen xaritoog benn doomi baay ngeen di liggéeyal bàyyi ci buntam ndax ëllëg bu ngeen dajeeg baay ngeen na ko bàyyi kan maa ngi doon liggéeyal ci sa buntu doom ji loolu yëpp jàngale moo naa Cheikhul Khayri la ko ku ànd ak moom mënoo ñàkk a bëgg baay Cheikhul Khayri léppam Cheikh Ibrahima foo ko gis muy nooy rek foo ko gis mu taxaw rek mbëggeel ak baay la jàngale foofu te kooku moo yar am mat nampal ko mbëggeelu Cheikh Ibrahim mbëggeel googu mu nampal Cerno ñun moom la ñu nampal te moom seex moom moo waxoon ne fa bi hubbihi ah fa bi hubbihi ahbabtu ahmada sibto xatmul wilayati man bii ma mutahaqiqu fa bi hubbihi ahbabtu saahiba faydihi wa suunu xaysu xilaafati tutlaqu seex dafa wax ne bëgg gim bëgg yenentu bi sallallahu alayhi bëgg gim bëgg yàlla ci la bëgg yenentu bi bëgg gim bëgg yenentu bi ci la bëgg Mawlana Cheikh Tidiane radiyallaahu anhu bëgg gi mu bëgg Cheikh Tidiane ci la bëgg Cheikh Ibrahim mbëggeel googu nag ñun ñëpp ci lañ branché ci buntu Mawlana Thierno Amadou Ndiaye kon mu muqaddam yëpp maa ngi wax ci tur muqaddam yëpp Thierno ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla yàggal sa taxawaay yàlla may na may la wér bàyyi waxoon na Thierno Hassane dem na ko yaay njaatige tukulóor yi fii ci Medina gannaaw bu na ñëwee naan lim naan naan da ko Haalpulaar yëpp waaye liggéey waar woowu nga xam ne ci la Thierno Hassane dem nekkoon yow itam yaa ci waar woowu ndax fuutal nga fekk baax waaye tey kër gi gën a mag gi nga tabax ci àddina yaa ngi ko tabax fi Medina Baye def fi courant ndox ak lépp fu ne nit ñi di fa jóge ci àddina di fi ñëw di fi wàcc di xañtu Cheikh Ibrahim sa lépp Cheikh Ibrahim la sa lépp bàyyi la ñun ñi la jege xam nañ la ci sëriñ si gën a modeste nga bokk amul dara looy woote ci sa bopp waxtu wuñ toogee ak yow bàyyi nga ñuy wax te toujours da wax sax ne même seexul xayri mi ma topp sax bàyyee tax balaa ngeen na xam ne ngeen doon xam ne topp ma seex ndax bàyyi seexul xayri xëy woote leneen lu dul bàyyi wala mu xëy wax leneen lu dul bàyyi kon du ma ko topp kon waxtu wuñ wéet ak yow rek bàyyi ci bëgg bàyyi ci loolu nga ñuy xëjtal amul dara loo xam ne yaa ngi ci wane sa bopp sëriñ bi wax na ci conférence bi sàng lu am solo mooy ñii toog di waxtaanee bàyyi ci plateau télé yeeg fu doon jarul ñuy sosol bàyyi loolu lu am solo la ci waxtaanu sëriñ bi ndax bàyyi lim li ko yàlla may ak lim fi def nit mën na cee wax baat na tukki te du jeex mas dégg ci imaam Assane mu nettali xisa bu mel noonu dafa voyage ci benn dëkk fekk benn waaye mu toog daan bàyyi nee bàyyi nee na bàyyi nee di wax rek te muy wax lu ci bëri du dëgg <laughs> imaam ne ñu mel noonu nag ñaareel foo leen fekk dañuy ne mu ne bi mu ñëwee toog rek waa ji ne isa ja almaaw la tey moom ndox moom su xasee am tim yàqu na déet imaam na ko déet bu tim nga yàqu continué rek mu suturaal ko bi jotaay bi jeex imaam wéet ak moom na ko bàyyi jarul fenal lim lim def doy na sëkk delal wax rek lim def donc kon sëriñ bi ñu ngi lay sant yàlla ñu ngi lay gërëm ci fàttali yooyu nga fàttali taalibe yi fàttali nga ñu tamit ñaax ñu ñi nga xam ne dañuy faral di toog ci internet ne yooyu dañuy wax maarifatu billaah maarifatu billaah yi kenn du ko wax ci internet internet li liñ fiy déglu ci bëri ay lay la waaye du maarifa lay ak maarifa du benn maarifa du lu ñuy wax donc jamono jii nag xëy na ñu bëri rëy nañu làmmañ ba ñu jàpp na yàlla la ñuy wax rëy la mañ ak ak wax xam-xamu yàlla du benn donc loolu it fàttali nañu ko muy lu am solo te bàyyi nee na kuy wo kuy wax kuy weer kuy weer mbóot duñ la dénk mbóot kuy weer mbóot duñ ko dénk duñ la dénk mbóot ñun ñii rek ku ci am sa secret doo ko wax wax da dangay seet ku am secret nga dénk ko Cheikh Tidiane nee na mbóot mu ci néeg boo xam ne dañ ko tëj damm caabi ci sànni dégg nga su dóorul axraari xuboorul asraari dëmmi gor yi mooy bàmmeelu mbóoti lii itam bokk na ci li ñuy sëriñ bi fàttali ci conférence bi muy lu am solo te xaw a bëri lool ci jamono léeg-léeg da koy gis sax da nga ci xaw a dérange wala nga am ci ker sax ndax bari na lu ñuy wax bàyyi wala ñu koy taqal bàyyi wala ñu koy kole te yenn discours yi la wala yenn melokaan yi nga xam ne ñenn yi ñu ngi koy ñu ngi koy melal te ci jamono boobu lañ nekk jamono réseaux sociaux jamono internet ba tax na képp koy wax la nanga nga seet li ngay wax loolu ñun ñu ngi ci sant suñ sëriñ Thierno Ahmad Ndiaye bu ngeen xoolee jamaa bi muqaddam mi fi nekk yëpp bari na borom yi xam-xam ñi ngi toog fu nekk di jàngale waaye maa ngeen gis ci ku dera ku déraper xanaa ñu mel ni man nga xam ne xamuñ seen bopp waaye ñu ci bëri bu ñuy wax dañuy sàmm mu baax li ñuy war a te loolu yëpp sëriñ bi moo ñu ko jàngal boo defee discours ba pare dana la woo na la li nga nangam ak nangam wax nga ji baax na nangam ak nangam bu beneen yoonee bu ko waxee nii waxee ko nii ñëpp lay orienté loolu dafay wane am kilifa ni mu amee solo kon kaddu yi mu ngi bëgg a gudd ñi ngi sant di gërëm ci jamaa bi yëpp di ñaanal yàlla ñi fi teew yëpp njabootu Cheikh Ibrahima gi yàlla na yàlla yokku leen may leen fadd yu gudd ànd yu ànd ak wér ñun dañ leen di tiitaroo ndax bàyyi njabootam gi mooy garanti la ci suuf si ñu nekk ñun suñ yëngatu guddeeg bëccëg yëpp Cheikh Ibrahima la lépp loo gis ñuy dox rek bàyyi moo tax moo moo tax ñu yëngatu ci loolu kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yokk leen ndax tiitar ngeen ci àdduna bi yëpp pays bii international la toujours bu ma jëlee kàddu balaa may daaneel danaa di ñaan yàlla boole taaliba bàyyi ñu nekk benn parce que tey bàyyi mouvement bi ko topp ci àdduna bi topput kenn li topp ci gannaaw bàyyi amut benn sëriñ ci àdduna bi bu mu topp amul ci Afrique waaye gis nga ne taalibe Baay fii ñu nekk tey waroon nañu nekk fu ko gën a kawe tey na bi war nañ ko mën a téye ñun ci suñu loxo di ko doxal araakum muluukal ardi laa sakka fasadu bàyyi ko waxoon gis naa la ngeen nekk ay buri suuf te loolu du mën a nekk feet taale bàyyi takkantuñ joxe benn euh, joxante loxo nekk benn parce que nekk benn gi lu mën a ne kenn ku ne nañ ko nangul xaalam kenn ku ne ñu nangul ko mayam li ko yàlla may parce que pays bi yaatu na tariq bi yaatu na waaye marta bi du ñu benn sawq yi ci yàlla du ñu yem même bàyyi bi muy ñaan sax daf na nil hum wasitum bi xadri sidq kullal muridi wa bi xadri shawqi yow yàlla mayeel waaye ku nekk comme kem cafeelam ak mbëggeelam mayee ko noonu bi xadri ma tuib tanal am daal kon maqaam yi yemuñ xaal yi yemuñ sawq yi yemuñ mbëggeel yemuñ waaye war nañoo mën a bennoo ci Cheikh Ibrahima salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu nee na mu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. teel ma yi. sant yàlla di julli seen yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam. sant yàlla julli ci yonent sallallahu alayhi wa sallam. ndokkeel suñu bopp di leen ndokkeel alhamdulilah si guddi gi. moom it mu ngi ndokkeel boppam wante mu ngi leen di ndokkeel yéen ñëpp ci guddi gu tedd gi. te ñu yàggoon ko def. ñu yàggoon ko def. mel na mbas bi moo taxoon ñetti at yi defuñ ko. mbas mi muy corona bi moo taxoon ñetti at yi lee defuñu ko. te dañ ko doon def muy sës rëkk si. gàmmu Taïba Niassène. dañ ko daan def muy sës rek ci gàmmu Taïba. programme yu bëri yi moom moo tax ñu déplacé ko. waaye programme yi takalantoo ci pays bi moo tax ñu déplacé ko andi ko fii tey. ñu ngi nuyu Hamdoulaye Mouhamadul Boucar Niang. nee na mu ngi nuyu Cheikh Ahmed Boucar Niang. di ko bëggee. mu ngi koy bëggee lool. di nuyu ay rakkam yoo xam ne ñoom ñoo bokk taaral jotaay bi. ak mboolem ay rakam yi nga xam ne ñoom la bokkaat ñu taaral jotaay bii. di si teg Mawlana Chérif Abdou Khadir Aydara. bu ñooñu weesoo mu ngi nuyu itam Chérif Abdou Khadir Aydara. xam ni yàgg na teewee jotaay bi. nga xam ne moom itam yàgg na teewee jotaay bi. sànq boobu trois heures la ma woo. sànq ci trois heures la ko woo. dafa yaakaaroon ni suba la. moom dafa yaakaaroon sax ci samedi bi suba. ma ne ko dañ ko toxal mu ne ko dañ ko toxal lu tax lu tax mooy suba la am na ziare bu am suba yaakaar naa suba ci le douze bi am na ay programme yu am ñu ni kon nañu toxal bi balaa muy nekk encore ay ay accident te tam sëriñ daara yi bi ñu fi ne ñëpp ay sëriñ daara la wax temps yi mi ngi woon Dakar mu ne temps yooyu boobu ko mun ko am ne ko ñàkk ñëw mu ne ko yow nag sëriñ jotaay bi mënoo leen ak ñëw. ziyaara keroog Dakar bi yàlla dafa dogal jotoo ko yëg. ziyaara Dakar bi yàlla dafa ko. te ñëwoo fa. te ñëwoo. mosoo ñàkk ñëw si suñu jotaay. mosoo ñàkk ñëw bi yoon boo ñëwulee dana metti si ñu lool. bi yoon boo ñëwulee dana metti si ñun lool. parce di jàkkaarloo yow di fàttaliku yanant bi. yow ngay teew si jotaay yi ñuy fàttaliku yanant bi ci yow. loolu mënul ñàkk tey de. de. mu ne xat na. mu ngi topp lool. maa ngay ñaan yàlla mu may ma nu ma ñëwee. mu ne maa ngi ñaan yàlla lan la ma yàlla may nu ma ñëwee. léegi léegi la agsi. léegi la ñëw fekkee na jotaay bi. ñu ngi sant yàlla ci loolu. ñu ngi sant yàlla ci loolu. bu ronoo baas baas bi. bu ronoo baas bi. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ronoo na ko. ñii bu ñu ronoo baas bi. ñii di njabootu Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass bi bu ñu ronoo baas bi. Cheikh na Ahmad Tidiane ak Cheikh Ibrahim ñoom ñoo. Cheikh na Ahmad Tidiane ak Cheikh Ibrahim ñoo ronoo baas bi. maa ngi nuyu Mouhamadul Habib Sall. mu ne mu ngi nuyu Cheikh Habib Sall. mosu ko ñàkk fekkee. moom tam jotaay bii mosu si ñàkk ñëw. suñu xarit la. xaritam la. si yàlla. si yàlla. suñu wëllëre la si yàlla. wëllëram la si yàlla. wëllëre sëriñ bi itam la si yàlla. wëllëre oustaz Cheikh Boucar lii la. alhamdulilah ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla yokk ay fanam. mu ne mu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla yokk fanam. ñun ñëpp yàlla defal ñu loolu. ñun ñëpp yàlla ñu ko yàlla defal. Euh, sànq Mouhamadul Boucar wax na ni. sànq Cheikh Ahmed Boucar wax na ne. ñuy màggal Cheikh Ibrahima. ñuy màggal Cheikh Ibrahima. loolu lu war la. loolu dafa war. yàgg naa wax ni. moom mii yàgg naa wax ne. àdduna mi ngi dem. àdduna ngi dem. wante ñett ñi nga xam ne ñii. ñett a ngi nii ñoo xam ne. dana dem ba seen anniversaire rek la ñuy màggal si àdduna bi. danañ dem ba nga xam ne seen i anniversaire rek la ñuy màggal si àdduna bi. muy rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. muy anniversaire Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. muy Mawlana Cheikh Tijani Chérif. muy Cheikh Tijani Chérif radiyallahu anhu. Mawlana Cheikh Ibrahim. muy Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass. suñu papa. suñu papa. Alhaji Abdullahi. Cheikh Alhaji Abdullah. moo njëkk jàpp nañu defal Maulana Cheikh Ibrahima màggal juddoom. moo njëkk a jàpp gàmmu Cheikh Ibrahima Taïba Niassène. am ñu wax ni bidaa la. am ñenn ñuy xóotal yëf yi la. ñu bëri si Mauritaniens yi daawuñu woon ñëw. mu ne boobu sax naar ñu bëri daawuñu woon ñëw. dégg naa si Papa As. moom mii dégg na ci Papa As. mu ne ba ma jàppee anniversaire Baye. mu ne ba ma jàppee anniversaire Baye. Cheikh Xayr rek moo ma si fekk. mu ne Cheikh Xayr rek moo moom rek si te fekkee jàngal nañu waxu Baye Niass. mu ne su fekkee jàngal nañu waxu Baye am na nag lu ñu bàyyi tey na lu ñu ci bàyyi tey si wax jooju. da ngay gis ñu def anniversaire deewu sa papa wala sa maam wala sa maamaat. mu ne da gis ñuy def anniversaire lu papaam deewu papaam wala sa maam wala sa maamaat. te bàyyi dafa tere loolu. te Baye kat waxut ñi feete ay dee. dafa wax ni. dafa wax ne. su ngeen di anniversaire. su ngeen di anniversaire. màggal. su ngeen di màggal. màggal leen bésu juddu yi. bésu juddu yi la war a màggal. mu ne bésu dee kenn du ko màggal. bésu dee du bésu bu ñu war a màggal. lii mi ngi si band wolof yi. loolu mu ngi si kaseti wolof yi. mu ngi mel ne ñu ni ko lu tax. mu ni màggal dee. màggal dee. yaa ngay beesal naqar. mu ne mu ngi mel ni yaa ngi beesal naqar. màggal juddu. màggal juddu yonent bi. yaa ngi beesal tawféex. yaa ngi beesal. tawféex ak ngëneel. tawféex ak ngëneel. li ma tax bàyyi mu ni. mu ne. nañuy màggal juddu yi. nañ màggal juddu wax kilifa yi. Euh, nañu bàyyi anniversaire dee mu neex nga ñaanal sa waajur. neex ñaanal sa papa wala boo ko jàppalee bés bi nga xam ne dellu si na nga defaat ko day nekkaat bidaa. bu nekk bu dellu nga def ko day nekk bidaa. màggal ko at bu nekk si at bi bés bu la neex. at bi nag la neexee nga jël bés bu la neex def ko. wante juddoom. waaye bésu juddoom. nga màggal ko. nga màggal ko. loolu tiitar la. loolu de moom tiitar la. kon ñun tiitar la ñuy màggal baay. ñun tiitar la si ñun tiitar la ñuy màggal juddu baay. tiitar si ñun tiitar la ñuy ngénte baay. ci di ñaan yal nañu yàlla kattanal at bu nekk ñu ngénte ko mu ne dañuy wax ni international la mu ne dañoo wax ne international la wala Baye mondial la wala Baye mondial la solution wala wax nañu ñun mu ne ñoom wax na leen taalibe yi gis naa leen ngeen falu ci kaw suuf gis naa leen ngeen falu ci kaw suuf Mouhamadou Boucar wax na sànq oustaz Cheikh Boucar wax na ko am na benn mbokk mauritanien am na wax lu bàyyi indi li mu ni lu bàyyi indi li mu ni lu bàyyi ko am na nag luñ ci jàngat am lu bëri waaye lu bëri jàngataguñ ko ko kan mooy bàyyi kan mooy Cheikh Ibrahim lan la bàyyi indi lu muy bàyyi indi dégg naa si lamiñ Cheikhul Xayri mu ni mu ne moom dégg na ci lamiñ Cheikhul Xayri mu ne bàyyi mooy sëriñ bi nga xam ni mu ne bàyyi mooy sëriñ bi nga xam ne moom rek moom rek. moo tontu question yu taalibeem yëpp mës laaj yëpp bàyyi tontu na ko. mu ne mbooleem question bu taalibeem mës laaj yëpp tontu na ko. lu ñu mës a itteewoo. luñ mës a nam bëgg ko. ba bàyyi tontu na ko. bàyyi tontu na ko wax na si. bàyyi wax na si. kon yomb nañu juboo. kon kay yomb nañu ñëpp ñu nekk benn. man lu ma gëm. mu ne moom nag lim gëm. ñu juboo nekk benn. pour ñu juboo ñëpp am na ci bàyyi. fokk fokk. ñu jël bindu baay ñu jël waxu baay. ñu ñu jël jëfu baay. ak jëfu sax jëfu jëfu saxaabam yi. mu nekk suñu référence. ñu nekk suñu royukaay. ay nit suñu bëggee jubóo. ay nit buñ bëggee ànd jubóo. dañu am cëslaay. foog ñu am fuñ ko teg cësaan. yàlla dafa wax si alxuraan. yàlla dafa su ngeen demee ba réeroo. julli yi bu ngeen réeroowee. dellu leen si alxuraan ak dellu leen si alxuraan. ak si yonent bi. ak si bi. parce que ñun ñoo am dégg-dégg bu wér bi. ñoom seen dégg-dégg moo wét tënk. kon julli di bu ñu wéréeroo rek. kon julli di bu ñu wéréeroo rek. nañu delloo si al dellu si alxuraan ak si sunna. nañ dellu ci alxuraan dellu si sunna. tijaan yi. tijaan yi dem bu ñu réeroo. bu ñu réeroo. nañu dellu si jawaayil maani. nañ dellu si jawaayil maani. ak téere téere muqadam Cheikh Tidiane. ak téere yi muqadam Cheikh Tidiane bi. ñun taalibe Baay yi. bu ñu réeroo bu ñu réeroo nañu dellu si waxu baay mooy dëgg baay mooy sëriñ bi nga xam ni baay mooy sëriñ boo xam ne bind na baaf yi bind na baaf yi wax na baaf yi kaset yooyu ngeen di dégg baay moo ko doon enregistré boppam baay moo ko doon jël enregistré ko boppam parce que xamoon xam na ne ay cuune yu mel na man ñu ngi ñëw si yoon bi xam na ne am na ñuy ñëw ci yoon bi ñu xaw te ñooñu foog ñu jëriñu daawaata ñooñu dañoo war a jëriñ kon suñu bëggee nekk benn mu ne nañu waxtaan. nañu waxtaan. kenn bañ mer. bu waxtaanee yàlla. waxtaanee yàlla bi. yonent bi Cheikh Tidiane. Cheikh parce que lu bëri ñu ngi koy dugal si pays bi bokk si. lu bëri ñu ngi koy ñambaas si yëf yi bokk ci. lu bëri ñu ngi koy sosal bàyyi di ko wax bokk si. koy lépp lu ñu fekkul ni mag ñi di ko def. lépp lu ñu fekkul mag ñi def ko. te bàyyi di yar leen si loxoom. te bàyyi bokkul si faydu bi de. loolu lépp lu bàyyi bindul waxu ko. lu bàyyi bindul waxu ko. bokkul si faydu bi de. bokkul loolu nag question yooyu yëpp bàyyi tontu na si. yooyu yëpp nag tontu na si moo tax. nañu waxtaan. nañuy waxtaan. sànq wax na intellectuel yi nañu dajaloo. mu ne sànq wax na na intellectuel yi dajaloo. man d' accord naa ci de mu ne moom man lan mooy intellectuel. mooy ñoom ñi mu ne yéen ñii la intellectuel. ak ak francisant yi. ak francisant yi. ak anglicisant yi. ak ñi jàng anglais. ñëpp lépp luy làkk. te ñoo am lu ñu tuddee ouverture culture universelle. ñoom ñëpp ñu ubbeeku ci wàllu xam-xam yi àddina yëpp. ñu am fatu. ñu am fatu ci yàlla bëgg bañ. ñu bëgg bañ ñu dëggu. ñu dëggu ñooñu ñooy intellectuel. muy ñu jàng arab jàng anglais jàng chinois ñoom ñooy intellectuel. ñooñu bu ñu waxee te ñu boole si ragal yàlla. muy ñu suñu ah. suñu waxee te boole si ragal yàlla. suñu waxee te boole si ragal yàlla. kenn du wax lu bàyyi waxul. kenn. kenn mënut a wax am na question centrale yi nga xam ni tey faydu bi mi ngi jàkkaar mi ngi jàkkaarloo. na question centrale yoo xam ñuy nëbb suñuy bët yaakaar ni amul. jarul ñuy nëbb suñu bët yaakaar ni amul. am na. am na beaucoup de problèmes. si néeg yi koy waxtaanee. si néeg yi koy waxtaanee. ñun Ibrahim la bëgg. ñun Baara lañ bëgg. mooy suñu sëriñ. mooy pays bi tey ñun ñoo ko war a défendre. ñoo war a défendre faydu bi. dëgg la. défendre faydu si dëgg itam lañ koy defaan si dëgg lañ koy defaan moo dëgg itam lañ Ibrahim dafa wax ni. Baara yi rajo Dado dafa wax ne. bu muy tafsir suratul anam. suratul araf suratul araf suratul Araf la doon firi. aaya 81. ci aaya ju nekk. am na communauté bi nga xam ne yàlla dañ ko bind. dëgg la waxtaanee. ñoom de la ñëw. si njub la ñu si njub la ñuy nekk. si njub la ñuy nekk. si njub la boole si communauté bi. mu ni faale wuñu ku leen xas. ñooñu ku leen xas ak ku leen tàgg mu ni faale wuñu loolu. ñee faale wuñu loolu. kon faydu bi am na ñu mel noonu. faydu bi am na ñoo bàyyi rek la ñu bëgg. am na ñoo xam yi. nañu wittu téere téere bàyyi. ñu waxante dëgg. ñu waxante génneeku. nekk nag mën nga gëm lu la neex. nekk mën nga jéem daganal lu neex. am na daganal fecc. am na ñuy daganal fecc. am jigéen. am na ñuy daganal sikkaru kurus. am na ñuy wax ni yàlla am na xalifa am na ñu wax ni faydu bi am na question d' organisation yoo xam dañ ko war a organiser organiser faydu bi nag man nu mu ko gisee mooy lu Baye wax li rek. mooy li Baye wax rek. dafa ni élever votre niveau d' organisation selon les techniques du monde moderne loolu la wax si lettre bu mu bind bi wax Barham nag na ko jàng dafa ni. mu ne na ngeen seen organisation bu dëppoo seen jamono bu ñuy dund bi. jamono bi ñuy dund bi. nous sommes à de l' internet. ñun ñu ngi ci jamono boo xam internet la. kon bu ñuy organiser fay du Medina rek. bu ñuy organiser fay tamit du ñu am ci biir Medina ne. mondial la. Euh, unité mooy euh, umma kenn mënu ko def lu dul bàyyi. tax. lu tax. jullit di euh, deux deux deux deux jullit lañu. léegi jullit ñi egg nañ ci deux deux milliards yooyu. deux milliards cent millions yëpp taalibi Cheikh Tidiane lañu. six cent millions yëpp taalibi lañu. quatre cent millions yëpp taalibi Baye Niass lañu. quatre dans tous les pays du monde. dans tous les pays du monde maanaam ci pays àddina ñooñu ñooy taaral diine bi seen dëkk fu ñu nekk fii. te loolu nag bu ñu bëggee unité islamique am. nekk ñooy ponk yi ñooy poto yi nga xam ne. te suñu organisé au niveau mondial. te buñ organisé dootul soxla dara. ak mbir soxla dara. kenn. moo tax mu ni gis naa leen ngeen falu ci kaw suuf. moo tax baay yi dem. baay yi ba mu demee ñun kan la fal. ñun kan la defal. Nigéria bu neexoon Talibe Baye kenn du fa nekk président ku dul Talibe Baye. mboolem Talibe Baye bu leen defoon Nigéria ku fay falu Talibe Baye ngay dox. plus de cent millions de personnes. yow luy waaj a ba cent millions. bu ñu jiiteloon kenn. bu juddoo xaalis bi boo ko tànn fii. dana foraatu si yeneen population yi li nga xam. mu foraatu si nga xam nekk président. kon loolu mën na am fii si Medina. mën mën na am si Sénégal. ñu def suñu bopp ay dof. kon nañu nekk ay julit ñu nekk ay jullit. ñu nekk ay tijaan. ñu nekk ay tijaan. ñu nekk taalibe Cheikh Ibrahim. nekk taalibe Cheikh Alhamdulillah ñu sant yàlla. ñu ngi sant yàlla alhamdulilah di ñaanal yàlla sama sëriñ moo ngi ñaanal yàlla sëriñam muy Mawlana Cheikhul Khayri Mawlana Cheikhul Khayri man lu ma nàmp si bàyyi gannaaw El Hadj Abdoulaye Niass mu ne lépp lu namp ci gaaw tey titre la pour pour taalibeem yi yu normal yi ay titre lañu pour taalibeem yi nga xam ne lim joxe ci lañ ne ñooñu titre lañ ne. ñu ngi sant yàlla ci loolu. ñu ngi sant yàlla di ñaan yàlla. yàlla. yal na yàlla na yàlla may ñun ñëpp ñu bëgg bàyyi ñu liggéeyal bàyyi ñu jëf lu bàyyi di wax ñu jëf lu bàyyi. yal nañu yàlla ma ñu bëgg bàyyi yàlla ma ñu liggéeyal bàyyi ñu defee li bàyyi doon defee waxee li waxee noonu la ñu wax dëgg yàlla bukaar a si Boucar ngi si loolu. mu ne wax dëgg yàlla Cheikh bi ngi ak yeneen jeunes yi nga xam ni c'est des intellectuels de la fayda. mu ak yeneen jeunes yi nga xam ne ay borom xam-xam lañ ci fayda bi. si lu rafet rek la ñu nekk. maa ngi leen di ñaanal yàlla. mu ngi leen ñaanal yàlla. na yàlla may leen gudd fan. di ñaanal yàlla sama doom bële. mu ngi ñaanal yàlla doomu bi sama sëriñ la. tiitaroo itam mu koy tiitaroo moom tam yal na ko yàlla lafal cat yal na yàlla lafal la cat yàlla may ko gudd fan ak wér yal na yàlla may fan bu gudd ak tous les jeunes de la fayda et tous les jeunes de la maanaam ndawi fayda bi yëpp nga xam ni lu Cheikh Ibrahima indi rek la ñu ittewoo nga xam ne li ñu daa indi rek moo leen soxal yal na yàlla saxal leen si njub yal na yàlla saxal leen si njub xalifa bi ñu ngi koy ñaanal yàlla fu mu xalifa bi ñu ngi koy ñaanal yàlla fu mu nekk fi fu mu nekk fi yal na yàlla sàmm ko yal na yàlla sàmm gannaawam ak kanamam yëpp yal na yàlla sàmm gannaawam sàmm kanamam yal yàlla sàmm njabootu Baay Ñas yëpp. yal ak doom yi. ak doom yi ak sët yi. ak sët yi si barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yal na yàlla may ñu koy féete ay at yu bëri. yal na yàlla may ñu koy féete ngi nuyu Mouhamadul Mokhtar Fall. nee na Cheikh Makhtar Fall mais mu koy nuyu baax. wallaay di ko wàccee si wàccuwaayam. ñu ngi koy wàccee wàccuwaayam. ak euh, doomu baay yu jigéen ñi. ak doomu baay jigéen ñi. ak sëtu baay yi. sëtu jigéen ñi fi ñëw nii. ak ñëpp ñu ngi leen di nuyu. ak ñëpp rek mu ngi leen di di ñaan yàlla Boucar yal na yàlla ñor di la say at. mu ne na yàlla ñor di naa wax El Hadj moom mos naa wax El Hadj Abdoulaye. na yàlla may gudd fan. yal na yàlla may gudd fan. ak wér. ñu lay génnee di la si naaj bi di la déggee sëñ Mbacke Sylla yàlla may gudd na ni yàlla léegi doy na. ni yàlla léegi mu ree mu ne amaat loolu moom jafe na. mu amaat mu ree rek amaat loolu moom jafe na. yal na yàlla defal la ko. yal na yàlla defal la ko defal la ko ñun defal ñu ko ñun ñëpp. defal ñu ko ñun ñëpp. alhamdulilah ñu jógee ñi fu sore ñu ngi leen di ñaanal yàlla ngeen. ñi nga xam ne ñu ngi jógee ba bitim réew ñëw pour fekkee si lii. yal na yàlla defal la liñ bëgg. ñu ngi nuyu chinois bi léegi la agsi. mu ngi nuyu suñu mag Balla Diouf chinois moom tam léegi la agsi. ak suñu dëkkandoo yu baax yi. ak suñu dëkkandoo yi tonton Ousmane Thiam ñoom Mbaye Diaté imam Jim Sila et cetera léegi. ñoom ñëpp yàlla moo ñu tànnal ñu bokk benn. ñoom ñëpp yàlla moo ñu tànn boole ñu ci quartier bi fii. alhamdulilah te ñuy dëkk dëkk bu rafet rafet ñu dëkk ngi leen di ziare ñoom ñëpp nee li daal lii laa amoon lu may wax mu ne ci gàttal daal lii la amoon ci lu muy wax te li may wax li xam nga ko te li muy wax li xam nga ko bu ñu gëmm suñu bët si loolu bu ñu gëmm suñu bët si yooyu parce que bu ñu yàqoo te mënuñu yàq pays bi nag ñun mënuñu fexe ba yàq pays bi faydu bi baax na dootu yàqu mukk faydu bi moom jàpp na ba pare dootul mos a yàqoo wante nag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 صادق الخائنين والمصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون مصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وحمزة والعباس وجعفر والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين wa radiyallahu taala an ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ajmain wa an ittaabiciina wa taabici taabicinahum bi ixsaani ila yawmi ddin rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuxzina yawma alqiyamati innaka la tuxlifu l-mii'aad rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا ربنا يا قالق العوالم حل بيننا وبين كل ظالم يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فاختم بقهر من علينا جسرا يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضيعة وحرج وامدد علينا مما كلامنا سرادقا من حل بيمنعه اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكلفنا في كنفك الذي لا يرام واجعلنا في جوارك الذي لا يغفر ولا يضام اللهم إنا نطلب بك في نور عطايا ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنك عالم بأعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانسانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وطاعينا وعاصينا اللهم اغفر لنا أجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرتنا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واكفنا ما همنا وما لم يهمنا من أمور الدنيا والدين وكف عنا أيدي المهتدين ولا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ربنا بشيخنا برحاما يسر لنا الأرزاق والإلهاما يا ربنا بشيخنا برحاما يسر لنا الأرزاق والإلهاما يا ربنا بشيخنا برحاما يسر لنا الأرزاق والإلهاما مكن لنا زيارة الرسول صلى عليه بارك وطل سيد إسماعيل الدعاء تجد تجد تجد آمين آمين آمين